bonjour chers tous di leen nuyu di leen ziar di leen dalal ak jàmm ci suba teel si àjjuma ji eh, fas yéene nag di ko rek ci suñu xibaar yi jaww ji eh, di météo du jour ñu fàttali ni eh, tey le vendredi 26 juin 2020 ñu fas yéene nag tàmbale rek ak waxtu bi naaj bi fenk ak waxtu bu muy sóor ñu gis ne ni nag naaj bi fenk na ci booru 6 heures 43 minutes te it dina sóor si ngoon si ay booru 19 heures 42 minutes. ci bésum tey ñu daal di dem rek euh, gën a découvrir suñu ay prévisions ci bëccëg ki tey ñu daal di gis ni jaww ji fii ci Ndakaaru mi ngi ñuy jox li nga xamante ni moom mooy 28 degré si bëccëg gi 29 degré foofu nga xamante ni moom mooy Thiès 30 euh, degré euh, Diourbel ak i Fatick 28 degré dikkaat fi nga xamante ni moom mooy Kaffrine 38 degré Kaolack zone centre du Sénégal bi moom Kaolack moo ci nara gën a tàng 28 degré dikkaat fii dans la zone sud Ziguinchor 31 degré Sédhiou 33 degrés Kolda et Kédougou, 34 degré ñu gis ne ni diggante Kaolack euh, Ziguinchor Sédhiou ak Kolda euh, asamaan si dina xaw diis tuuti mu xaw humide euh, donc nawet bi moo koy waral saa su ne rek dafay xaw mel ni lu diis du tàng du sedd air bi dafay xaw daal sec ñu daal di descendi ba tey dans la zone sud du Sénégal Tambacounda ba tey présence de nuage avec 36 degrés 40 degrés dans la zone nord fi nga xamante ni moom mooy Matam un ciel dégagé pas de présence de nuages du tout en cette matinée Guinée 39 degré saint Ndar Géej it il fera beau ce matin 39 degré euh, fi nga xamante ni moom mooy Louga un peu de nuage en matinée waaye nag taxu kaa garaaw noonu donc il fera quand même beau en soirée nous allons découvrir les températures s'il fera un peu plus beau on verra 26 degrés fi nga xamante ni moom mooy Ndakaaru 27 euh, degrés euh, Thiès 32 degrés Diourbel 28 degrés Bataille fi nga xamante ni moom mooy Fatick 29 degrés Kaolack Kaolack nag dañ fay amal prévision de pluie am si guddi tey euh, Kaolack moom mu taw ci guddi gi tey Kaffrine 32 degré lañ fay amal Ziguinchor 27 Sédhiou 27 29 degré fi nga xamante ni moom mooy Kolda 30 degré euh, Kédougou 33 degré Tambacounda 34 degré euh, Matam 32 degré Saint-Louis et Louga 33 degré on on cette soirée du vendredi 26 juin 2020 ñu daal di dem rek ci suñu ay marée haute marée basse ñu haute ñu xool rek ba xam ndax ci bésum tey ñaata marée haute la ñuy am voilà nous aurons deux marées hautes pour ce vendredi ba ca njëkk minuit 12 minutes lañ ko amaloon ci guddi gi waaye ba ci topp nañ ko xaarandi ci diggu bëccëg gi ay booru 12 heures 32 euh, minutes lii moo nekk nag suñu ay marée haute ba ci njëkk nag ma fàttali ni wees na si guddi gi waaye ba ci topp mën nañ ko euh, dabu ji euh, ci waxtu 12 heures 32 minutes ñu daal di dem yërnu suñu ay marée basse suñu géej gu fer nag ñaar tamit lañ ci amal ci bésum tey ba ca njëkk it wees na ci euh, fajar ay 6 heures 3 euh, minutes la weesoo euh, ba ca topp nag nañ ko xaarandi rek si si 18 heures 55 minutes moom mooy waxtu bu baax bi ci naka noonu nag la amoon contenté nag dégtal leen li nga xamante ni mooy suñu ay prévisions météo de la journée d'aujourd'hui ma bàyyi leen rek ak suñu horoscope du jour bu ko defee rek ma sama ay natango ñu daal di leen faram fàcceel liñ leen indi ci suba teel الرضا كل عبد موحد على خطي في الذنب أو عن تأمد جرائرنا تمحى بجاه محمد إذا شفع المحبوب جاز المباح رجوه جرائرنا تمحى بجاه محمد إذا شفع المحبوب بجاز المباح رجو جرائرنا تمحى بجاه محمد إذا شفع المحبوب مجاز المبحرج على أحمد من ربي صلواته لقد عظمت في خلقي بركاته لقد بهرت شمس الضحى معجزاته براهينه لا تنقضي وهباته وآياته شهب وأنمل صحبه جرائرنا تمحى بجاه محمد إذا شفع المحبوب بجاز المباحرج جرائرنا تمحى بجاه محمد إذا شفع المحبوب مجاز المباحرج الله حسبي لديني حسبي الله لما إليه اهتمامي حسبي الله لكل باغ علينا دائما أبدا كذا لمن يحسدوني حسبي الله الله حسبي لمن بسوء كاد بنا كذاك عند مماتي حسبي الله وعند مسألتي في القبر ذا فرق لما اقترفت ذنوبا حسبي الله وعندما نسب الميزان معدلة نرجو نبي الهدى قل حسبي الله الله حسبي إذا مد الصراط على matni jahannama maddan xasbiya allahu allahu xasbiya laa rabban siwaahu law tawakkuli wa iyaabi xasbiya allahu mhm. yaa rabbi salli ala almuxtaari min mudarin mhm. fi xaqi qultu xaqan xasbiya allahu mhm. kama tusalli ala alin saxaabati maa qaala abdun munibun xasbiya allahu allahuma yaa man adhara aljamila وستر القبيح ولم يأخذ بالجريرة ولم يهتك السترة ويا عظيم العافي ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقل العثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك أن لا تشوه خلقتي ببلاي الدنيا ولا بعذاب النار فامنن علينا إله العرش خالقنا بصحبة القطب في دنيا وأخرى لذاك توصلنا إليك بكل ما أتتك السماء محتلة بسعودها بارك مكة بارك مدينة بارك فاس بارك تيوان بارك الشيخ الحاج مالك بارك الشيخ الخليل ما شاء الله macha allah ci kàddu yi lañ leen di ñaanal yàlla ajjuma mubarak ak bésum jàmm mag yi nga xamante ni ñoom ñoo fi bàyyeekoo ñu leen di ñaanal yàlla yal na yàlla yàgg di yokk seen leer te di ñu uh, tas uh, ci seen barke ma dalal samay nattaango uh, soxna Fatou noo def. développement maa ngi fi bu baax a baax di la nuyu di la ziar tam di la wax tamal juma di ko wax tak ñi nga xam ne ñu ngi teewlu du ñu seetaan saa su ne moo xam Sen TV wala sur Facebook di nuyu Luisa la plus belle di ko jaajëfal tamit di nuyu tam suñu invité tey ancien entraîneur la Joseph Basley wuyoo nañ ci dikkaat léegi incha allah ni nga ko waxee rek di ñaan mag yu baax yooyu fi bàyyi ko comme démb Pape Malick tey jilee kii di rek njiit xalifa bu Thiénaba jaale kulu jullit ñaan yàlla taas ñu seen ay barke yàlla yemale ko fi eh, daat ñuy rek may ñi fi des gudd fan kilifa yi ak wér ñu gunge ñu ba ci kanam ñuy sàkk bu baax a baax ci seen ñaan Euh, tout à fait soxna ñu nekk ay mag yoo xamante ni wax fa dëgg yàlla euh, baax nañ ci Sénégal te dinañ fi yàgg di baax ndaxte jëf moom mooy gudd fan euh, te seen jëf wax fa dëgg yàlla tasaare nañ ko ci gune yi ci mag yi sax defar nañ ñu bëri tarixa ci jaañeetu yaakaar naa ni démb ba tey rek am nañ tiis ak naqar ñu bokk kook ñoom bokk kook tout la umma islamique di masaw bu baax a baax ñi nga xamante ni waajur la rawatina ñi nga xamante ni ñoom kilifa diine la guide spirituel la ndiit la euh, ci seen yoonum lislaam euh, Louisa Diandi noo def yaa ngi am jàmm. maa ngi si jàmm bu baax baax maa ngi lay nuyu di nuyu soxna di nuyu suñu invité bi ak euh, ñi nga xamante ne ñoo ñu seetaan si suba teel tey si vendredi bi. macha allah ñoom it ñu di la fay monsieur Joubas nuyu nañ la di la dalal ak jàmm ci suñu biir. maa ngi kontaan ci ni ngeen ma dalal nii te may jaale bépp. umma islamique ci suñu mag yi suñu nit yu tedd yi làkku macha allah Aïcha dañuy daal di rek tàmbale ko ak li nga xamante ni mooy tàggat yaram ñu daal di la bàyyi rek nga ànd ceeg sa ngan ñu fas yéene waxtaanee sport donc on retrouve tout de suite soxna dans la page sportive. lan mooy actu sport bi tey soxna. actu sport bi asma comme ni nga ko waxee gan gi dinañu waxtaan lu jëm ci wàllu sport waaye itam li nga xam ne mooy sacre Liverpool euh, bu Sadio Mané 30 ans après dinañu waxtaanee itam union des joueurs professionnels bu Sénégal nga xam ne euh, taxawal nañ ko ñoom itam ngir bëgg rek xeex seen ak ak yelleef ak tam syndicat bi nga xam ne ay entraîneur taxawal nañ ko ci ak tënk daal dinañu dugg bi ci réew daal fa fay waxtaan ak tuut waaye laataa loolu dañ koy doore ak gan gi euh, Joseph Bass ñi nga xam ne ñi ngi seetaan xëy na xamuñu la est ñu dikkaat ci lu gàtt rek ci résumé sa présentation yow la kan ak ci lan nga yëngatu ak fan nga ko yëngatoo. waaw man ñu ngi ma gën a xamee ci tout Job As euh, je un pur produit euh, de la rue parce que euh, nawetaan la commencé ba mu fi jógee ma dem CNEPS nekk enseignant d'éducation physique bi mu fi jógee commencé entraîner équipe nawetaan depuis 87 ba mu si jógee tamit jël ASC Cambérène D2 maa leen yéegaloon première division en en quatre vingt dix léegi nag euh, après bi mu fa jógee ci laa dem États-Unis maa ngi fay liggéey ci benn académie bi ñuy wax euh, United 1996 football club. Hmm, académie bi ci football la yëngatu mën nañu xam ban catégorie d'âge ñoo fa nekk. Euh, xam nga académie yi fële aux États-Unis nii nañ leen organiser. dañuy commencé jël xale yi bi ñuy am 6 ans ba 19 ans ça veut dire que su bi ñuy dugg école ak ba bi ñuy dem université ci ci lañ leen di tàggat di leen former suñu pare après ci la ñuy dem université. Hmm. est-ce que académie bi am na ay sénégalais wala ay africains. waaw am na ay africains jot naa am. actuellement sax mu ngi football ci mooy fii euh, suñu basketteur bi nu mu góor gi Sidien waaw léegi sama sama benn joueur moom ngi fay football actuellement ci football bi la nekk. Euh, mooy Louisville euh, ci ville Kentucky Kentucky la nekk. léegi nii la ñuy doxalee euh, formation bi foofu aux États-Unis à partir de six ans parents yi dañuy indi seen doom yi. ñu leen di tàggat tàggat di leen tàggat di leen tàggat ba suñu àggee dix-neuf ans. ci la ñuy dem université parce que am na loo xam ne nit ñi xamuñu ko. États-Unis sport. moyen d'éducation la seen seen équipe professionnelle yi du ñu jël nit ci mbedd du ñu recruter ci mbedd il faut nga dem université même muy basket tous les sports il faut il faut nga dem ci université ci biir université bi lañ lay mën a recruter pour nga mën a nekk euh, un joueur professionnel. te il faut que sa note yi baax tamit euh, bokk na ci critères yi. mais xam nga xam nga soo mënulee jàng doo dem université. <laughs> donc il faut nga am bac soo amee bac après nga dem université. non mais par rapport au au au même aux aux étudiants dañuy tànn ci seen biir ñi nga xamante ni mhm. ñoo dàq jàng. voilà xam nga euh, am na loo xam ne lu ma ne nasaraan yi rawee nañ ko mooy comme. président Senghor lu mu doon wax mhm. muy ne tubaab yi dañu am organisation ak méthode Mm-hmm. ñoom seen université yi dañ leen classifié comme fii temps bu ba ñun suñu génération euh, lycée Vanvo mm-hmm. mooy actuel Lamine Gueye c'est pas n'importe qui lañ fay yóbbu. tout à fait Mariama Ba c'est pas n'importe quelle fille lañu fay yóbbu. Mm-hmm. tubaab yi nag ñoom nasaraani fële Amérique ñoom dañ koy classifié université yi dañu am classement. day am un deux trois ba deux mille wala ba trois mille. léegi suivant say notes dañ lay jël yóbbu la fii. même ci sport bi sax dañ lay note tout à fait que su dee yow am nga not bu baax dinañ la mën a yóbbu ci université bi su dee sa note yem na ci université bi ngay dem ainsi de suite te lenn la nit ñi xamul aussi am na ñoo xam bëri xamuñu ko fi état kii Sénégal université États-Unis c'est des universités privées yaa am université publique amu fa léegi yow su dee amoo ay moyens te nga mën benn sport dinañ la mën a. may bourse mun na nekk demi bourse quart de bourse wala bourse complet soo nekkee nag koo xam ne dafa xarañ ci li muy def soit muy volleyball football wala basketball donc université dañ lay xëccoo xam nga loolu avantage la ci pour sa parents yi yaa ngi waxtaan léegi waxu organisation ak méthode euh, c'est euh, c'est un réel problème au Sénégal euh, yow mi nga xam ne jot nga fee jaar jaar nawetaan ba jaar ci ay équipe naka nga ko gisee ci suñu réew naam sax am na ay structure école de football yi centre de football yi bari na académie yi tamit commencé di poussé wu mais est-ce que jàppoo ni am na tamit liggéey bu rëy bu ci des buñ ci war a def gis nga parfois nit ñi dinañu def seeni projet mm-hmm. mais parfois dañuy juum ci nuñ koy doxale ci niñ koy doxale par exemple euh, euh, man su may wax ci dara day nekk loo xam ne dama ko dund dama ko dund wala ma fekkee ko soo xoolee euh, équipe bu Côte d'Ivoire mm-hmm. bi ñu sancee le sol béni avec fàtte naa professionnel français bi mu nga fa ba léegi mm-hmm. sol béni bi ñu ko sancee quelques années après gagné nañ Coupe d'Afrique mm-hmm. ak ñoom Yaya Touré et consorts. Mhm. Sénégal depuis bi ñu créé euh, Jambar institut Jambar après génération foot ñëw léegi mu ngi def ay at Jambar defe naa war na passé dix ans. tout à fait 2003 la woon. voilà 2003 ba léegi. Mhm. quels sont les résultats dinañ ma ne waaye ñu ngi nekk euh, numéro un en Afrique wala numéro deux en Afrique wala numéro vingt au monde mais on n'a rien gagné c'est là où le bas on n'a rien jafe-jafe ci wàllu formation am na. jafe-jafe bi parfois si ñi ñu tànn. Mhm. pour ñu doxal mbir mi. parfois problème bi foofu foofu la nekke ñi ñu tànn bon du question damay def ay attaques personnelles non. Mhm. je je l'ai toujours dit dama koy wax en privé. Mhm. parfois c'est la première fois ma koy wax en public. il une erreur de casting. sur le choix. au niveau de de l' équipe A. foofu sa loxo parce que dañ ciy dikkaat ñu pare formation bi ñu ñu waxtaanee tuuti actualité duggaat yi ak yow Asma. Mm-hmm. Euh, vous le permettez. oui allez-y actualité rek <laughs> waxtaan ak sacre Liverpool bi. Mhm. Euh, day daf ñuy neex doomu Sénégal lañ ay doomu africain lañ <laughs> xam nga sénégalais jël lu ni mel 30 ans après euh, Sadio Mané la meilleur ah mën nañuy jàpp ni mooy la meilleur parce que performance yi mu wane ak Liverpool ak léegi am na solo trop. Euh, kon Liverpool xaar bi yàggoon na trop gannaaw ba nga xamee ne amoon na jiixi jaaxa pandémie bi jaar fi ñu arrêté lu ni mel waaye door nañu li ko waral nag mooy Chelsea dafa daan. City démb kon euh, ñii diwaa waa Liverpool 23 euh, points d'avance yi ñu am à cette journée de la fin kon kenn mënatu leen a dàpp looloo tax ñu jël lu ni mel 90 ak léegi ñi ngi taw ci kaw rek trophée bu ni mel bu championnat bu Angleterre comme ni ma ko waxee sànq rek sa Sadio Mané considéré comme l'un des meilleurs joueurs bu Premier League bi muy Sénégal bu njëkk dugg ci soir daal di remporter championnat anglais bile coéquipier yi itam Naby Keita doomu Afrique la Mohamed Salah ñoom itam dugg nañ ci taarix football foofee ci Angleterre ñu mën ci jàpp itam ak camerounais bi di rek Matip Joël Matip moom itam dugg na ci taarixu euh, football foofee ci rek Angleterre ndaxte ndam li nga xam ne am nañ ko laata sax saison bi di jeex daat na koy wane moo ne day door nañ ko début bi ba léegi comme ni ma ko waxee sànq rek ñi ngi ci di daw di ko rek xëccoo waaye boobu ak léegi ñoom ñëw devancé ñi nga xam ne ñoo toppoon ci seen ay ginnaaw kon ñu fàttali leen ni 23 points moo dox ci seen diggante. ak ki topp ci ginnaawam euh, monsieur Bass day baax nga gis euh, performance bu ni mel doomu Sénégal bokk ca loolu day firndeel ni naam bu fekkee ni xëy na football bi lépp doxul sax waaye am na ay individualité ay benn benn yoo xam ne ñu ngi ciy réussir. waaw man kontaan si trop ci li Liverpool gagné euh, championnat Angleterre te ñu am ci suñu benn suñu benn doom suñu benn jarbaat muy Sadio Mané man nag lii bettuma parce que euh, am na benn année ma yore woon Cambérène d ñu dem football yi Ziguinchor Sadio Mané il est de la Casamance ñu dem football yi Ziguinchor ñu ngi fanaanoon ci euh, CDEPS bi suba teel ay 9 yooyu ma dégg bruit bruit ci ginnaaw mur bi après ma ànd ak sama benn joueur ñu yéeg mur bi yurundu ma gis ay xale di fubal ñu ngi amoon ay douze dix ans c' était en c' en quatre vingt dix neuf. ci boobu jamono. ci boobu jamono ñuy fubal mu rap ñu ngi yore ay jël ay potu dugal ci ay xeer di ko yëngal ay xale yu jigéen nekk foofu neuf ans dix ans di supporter. ma wax sama joueurs yi ma nekkaloon ma ne leen je vais vous dire une chose ñu ne ma la ma ne leen di si dix quinze ans ah la Casamance va. la région naturelle de la Casamance. Mm -hmm. va dominer le football sénégalais. Mm -hmm. donc moo tax lii man bettuma Sadio Mané euh, au départ nit ñaa ngi doon weerante est-ce que il a le talent il n'a pas le talent mais il s'est tellement bonifié que finalement gis nañu moo nekk suñu fierté fu mu nekk nii. te mu nekk euh, ku am jom ku ku ku ku mën challenge it euh, ku xale boo xamante ni daal moom et puis euh, ce que moi j'admire chez Sadio Mané c'est sa correction. Hein, mm -hmm. dans dans dans dans la discipline sportive. absolument comme ni ko Mariama Soane moom tam suñu concert la mu ngi foofu ci Sédhiou nekk wu jege ñaaleem saa su nekk rek daf ñuy wax ay performance du ñàkk beneen suba teel dinañ ko indi moom mu am yeneen question yu ñu ko jotoon na posé ñu waxtaan waxtaani ak euh, football local lataa ñuy continuer ak invité bi rek dikkaat ci actualité ñoom nag joueurs yi bu ñu mënee gis image yi euh, foot local bi euh, ñoom dinañ ci dikkaat sax ñoom ndaxte jël nañ leen image dafa carte bi moo am ci jamono ji ay ko gisee noonu ñu taxawal union des footballeurs professionnels li ko waral nag mooy du du xànji du du du du du ay ay coow wala dara waaye li ko waral mooy fexe ba seen àq ak yelleef ñu mën di ko defendre ñu bari ci joueurs yi bokk na ci capitaine équipe bi bokk ci lu ni mel kon nag seen carte baa ngi noonu ñoom nag daje woon nañu waxtaan ngir xool naka lañuy ñuy ngir xool tamit ban yoon lañu mën jaar ngir seen kuréel googu gën a taxaw Alpha Thiam ak ñi àndal ñoom ñëpp eh, daal di taxawal lu ni mel ak seen ay ñooñ ni ma ko waxee rek mooy fexe eh, ba ñoom ñuy défendre seen ay intérêt xam ngeen ni ab eh, rek collectif juddu na ñu war a taxawal tam ab syndicat ñooñ ay entraîneur la daal di tënk suba nag le 27 la ñu war a rek amal seen assemblée général ñoom itam ngir xeex tam seen yelleef ak défendre seen ay intérêt moo leen tax a jukk kon demee lay doon coach mu mel ni lu fi amul woon ci Sénégal mi ngi tàmbali di am gis nañu joueurs yi taxawal ko tam union euh, entraîneurs yi taxawal syndicat naa entraîneurs yi gisoon nañ fi benn waaye xëy na ñoom ñi ñëwaat surtout les plus jeunes gis ñu ci seen bopp. Euh, loolu maa ngi koy rafetlu parce que comme ni mu leen ko waxee rek ci njëlbeen ne leen man li ma dund rek ci loolu rek laay wax li ma fekkee. Mm-hmm. Euh, am na benn année ma jógee États-Unis ñëw ma dem benn match fële à Pikine ma gis fa Baba Touré yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko ci àjjana eh, yu gën a kawe bi ma ko gisee ma gis situation métti woon na ma trop mhm. parce que dafa nekk koo xam ne fierté la woon fii Sénégal nit ñi dañ doon dem di yendu stade Demba Diop pour mën ko seetaan mhm. sinon doo am place mais ma gis ko ci situation bu mu nekk métti woon na ma trop parce dem na ba retraité ci football mais condition sociale doxuloon trop moo tax léegi su dee sportifie dem nañ ba di organiser wu nii pour am syndicat loolu pour mën a aar seen ëllëg la mhm. kontaan naa si trop jaajëf ñu waxtaanee euh, coupe du monde 2022 xam ngeen ni ca Qatar lay daal di xewee waaye laata loolu conseil bu FIFA daal di nay xamal ci ay xibaax que ni dina amal beneen compétition bu yees boo xam ne dina rek opposé ay sélection arabe ñi ngi ko war a rek euh, amal du premier au 18 décembre 2021 instance bi nga xam ne moo dirigé euh, football mondial bi ni euh, ci sur invitation lay doon équipe nationale masculine yu pays arabe euh, yooyee ak ay pays Afrique ak Asie yoo xam ni joueurs yi nga xam ne dañuy évoluer ci seen dëkk ñoo koy rek disputé ñu ni dana génn rek fenêtre bu calendrier international bu match yi ñu mën a jàpp rek euh, boobee tournoi dina permettre ñu mën a jëfandikoo infrastructure ak testé tam opération yi nga xam ne ñu ngi ko war a amal coupe du monde deux ñu mën a jàpp rek ci Afrique euh, pays yi nga xam ne ñoom la concerné moo di Algérie Maroc Tunisie Égypte Somalie Mauritanie Libye Djibouti ak Soudan Comores joueurs yi mu concerné ay locaux képp la ñuy doon ñi nga xamante ni si dañoo war a jongante kon ci euh, CHAN bi nga xam ne euh, ba tey xamaguñu date bu nu koy amal coupe du monde ci jigéen ñi moom atum 2023 wax nañu ni Australie ak Nouvelle-Zélande kon lay daal di xewee. waxtaanee ba tey xibaar ci wàllu tàggat yaram FIFA boobu la ñuy descendi en ah, ñu ni rek wax nañu ne match de qualification kon duñ ko mën a amal ci rek datu FIFA yi maanaam septembre te rek Coupe d'Afrique des Nations bi desoon na ñeenti match yoo xam ne war nañ ko jongante éliminatoire la jëm ci wàll woowee ñu waxtaanee mercato Everton ci ab communiqué xamal ni kii di Baye Omar ñaas rek day jeexal fin du bi ak ñoom ñu xool ba xam doomu mujjee Euh, waxtaanee euh, co-organisation Guinée euh, bu Équateur Guinée Conakry moo ko war a amal atum 2025 moom nag doon nañu wax ndax da koy bokk ak Sénégal am déet waaye lu ñu ci mën a jàpp rek ay xibaar ci seen jëwriñ bu ñu dénk wàllu tàggat yaram wax nañu ne noppi wu ñu pour bokk ko ak Sénégal kon jot ñu am fulay fexe ba am infrastructure yu ñu mën a dalale compétition bu ni mel laata ñuy jeexal ci résultat yi ñu waxtaanee waat ba tey gis nga Guinée ñoom ba tey chaque fois ñu génn naan bëgguñu bokk ak Sénégal lu ne mel jot na yaa ngi ko doon wax sànq. Mm-hmm. équipe A bi ñu am infrastructure yu mën a dalal lu ni mel ba kenn duñu yàpp rawatina Guinée goo xam ne <laughs> ah, jàpp naa ne du xeebeel mais Sénégal fi mu toll ci football xëy na ñoom yegg seeguñ fa waaye ñoom ñi def ay jéego quand yu am solo jëm ci kanam. xam nga euh, balaa may tond ci li nga wax nii euh, gis naa quelque part ci euh, journaux yi nekk sur la place. ñi wax que dañuy réfectionner stade Demba Diop xam nga stade Demba Diop temple mythique la pour le football sénégalais. Mhm. xamuñu ne pour ñu mën a am dara. pour ñu mën a am dara stade Demba Diop bii la mën a jógee maanaam su doon sama à part jeux yi ñu nar a defee. Euh, à Diamniadio tu vois loolu mën a mën parce que c'est international ma kenn mënu ci wax mais fii au niveau local gis nga Demba Diop. wax naa ko fi en je pense en 2004 ma ne dañ ko war a raser complètement tabax fa stade troisième dimension troisième dimension parce que pourquoi match su fa amee am match bu am importance bu fa am mm-hmm. nit kii de mun na toog këram naan at añ naan ataayam dem stade bi dina fees mm-hmm. dina fees te joueurs yi ñu yëg ne am na lu nekk seen ginaa imaginel nga yóbbu U20 ñi fubal fële jam ñaajo nga defe nit ñi nañ dem. accessibilité bi quoi da ciy am solo. moo tax di Guinée bi ñuy wax ni Guinée euh, nañ def euh, CAN bi ensemble ainsi de suite. tu vois c' est une c' est une c' est une chose c' est chose mais je pense que defe ñun suñu côté pare wuñu. mais Guinée bañ na. mais mais mën nañu. même même ñun defe naa ñun est ce que ñun pare nañ mais ñun am nañ fi ay bërëb yoo xamante ni comme ni mu ko waxee buñ ko réfectionné mais dans vraiment dans l'ensemble mhm. mën nañ dalal euh, li ni mel waaw bu euh, ñu ko defaraatee bu ñu ko defaraatee en tout cas euh, <laughs> jafe-jafe la ci réew mi nag <laughs> nañu ko jafe-jafe la ci réew mi naam am na ay jéego yoo xam ne def nañ ko ci waaye ba tey am na lu des am na am na lu des parce que man su ma rombee fële stade de l'amitié mhm. sama xol day jeex dugguma ci biir nag. damay wax sama dëgg. mais su ma gisee environnement bi rek sama xol day jeex parce que am na yoo xam ne sa waruñu ko seetaan. bu duggee ci biir gën a jommi. Hmm. nga tilim kenn xamul lu muy nuroon. <laughs> dëgg la mais c'est c'est problématique la boo xamante ni. Hmm. voilà peut-être même aussi les sportifs euh, est-ce que ñoo ngi ciy waxtaan ak ñi ñi jiite euh, euh, wàll boobu noonu soxna. bien sûr ñu ngi ciy waxtaan ba fi may waxanteeg yow nii am na ay projets yoo xam ne. taxaw na pour defaraat stade yi pour defaraat Demba Diop parce que Demba Diop eh, fédération da ko laaj benn financement boo xam ne day jógee FIFA ak njàppalum eh, ministre des sports ak njàppalum gouvernement bu Sénégal ngir ñu defaraat ko xëy na pandémie bi moo fi jaar affaire yi yeex mais ñi ngi ci woon quand nag ñi ngi ci woon mais boobaak léegi dafa yàgg ñuy xaar eh, parce que tamit jot na tamit ñun dañoo bëgg projet de soxna waa projet non abouti soxna soxna man dinaa insister ci affaire <laughs> Demba Diop boobu. waaw xam nga Demba Diop suñ ko jëlee. Mhm. ni ko excusez-moi du terme di ko rafistole. Mhm. rafistole. ah deux ans après dëbb daaxe dab daaxe waaw kon nuñ koy waxee ñun bi ñuy nekk xale. di ko dab daaxe deux ans après parce que mhm. lépp loo ko gis rek dafa am durée de vie mooy comme nit. mooy comme mala wala leneen. même instrument yi dafa am durée de vie yaa ngi ni yore nga sa téléphone. Mhm. mais am na dure de vie. du ko mën a dépasser. Mhm. tu defe naa démb Diop dure de vie am dafa dafa dafa. dafa jeex dañ ko war a raser tabax fa benn stade 3D. Mhm. wóor na ma man maa la wax tey suñ ko defoon. Ah, ci 10 ans. muy lépp mat petite catégorie. que ce soit continental ou mondial dinañ ko mën a gagné. Euh, surtout que petite catégorie gi moom ñu ngi def ay avancées quand même notoire ñu ngi participer ci ay compétitions ñu ngi dem ba ay final euh, xale yu xarañ la ñu am nag xëy na jàppale gi encadrement bi moo xaw a des rek. gis nga soxna euh, mës naa ko wax kenn sama ancien élève te mu yore commission. féminine bi féminine bi nu mu tudd ci Seyni Ndir Seck Seyni Ndir Seck elle a été mon élève au CMT Martin Luther King. Mhm. wax naa ko mais elle n'a pas beaucoup aimé. Mhm. j'ai beaucoup aimé votre émission defe naa hier mooy góor gi bi nekkoon fii ba muy wax affaire nga tooñ nit Papa mhm. nga tooñ nit. ah ak nit mere la xam nga am na différence. professeur Don Fara développement personnel tooñ nit wala nit mere la. bon man xam naa su may wax lii tooñu ma leen dinañ ma mere nag dinañ dinañ dinañ ma mere dama ne ah, si j'étais le ministre du sport wala ma nekk Macky man président su may jox nit yenn liggéey depuis parce que euh, au niveau du foot depuis 1960 mosuñu gagné un trophée continental ni mondial man su ma doon dénk nit ah, ndombo tànk boo xam ne dangay nga yore football Sénégal dama lay ne may naal deux ans deux ans soo gañewulee dara xamal li ngay def. ngay gàttal àpp bi ci mu bokk ci condition. parce que man dama xam loolu gis nga euh, ku ku ku musul entraîner nawetaan. Ah. xamoo lu ñuy wax pression. nañ la jox ñaari tali bi nekk fii à côté. Mm-hmm. nga nekk seen entraîneur nawetaan. soo yolomal yolomal soo defee nag sa kër la ñuy taal. di def tout. ba ngay gagné. Mhm. man defe naa pression moo amul moo tax depuis 60 ba léegi gagné mhm. wu nga ni gars yi pourtant ñu ngi teg pression de ñu ngi tapé sur la table et tout bon à votre yow lan nga jàpp ni euh, football bu Sénégal hmm, surtout ñu commencé ko ci équipe A. nan nga jàpp ni moo moo moo doxul daal moo doxul ak fan la sooxee ba ci jamono ji saa su nekk rek ay échec répétitif di am. xam nga bu njëkk bi dañ doon dañ doon jël ay entraîneurs étrangers. Mhm. ñu gis ne doxul. man d'ailleurs sax ja euh, j'avais fait un papier sur euh, Giresse mhm. ba ma ne ko ci euh, Giresse a mis ses petits mooy kaan bi mu ñu yóbbu noonu mhm. bi demee ba xool ne biñ de bi demee ba xool ne entraîneur étranger yi doxul ñu jubal ci entraîneur nationaux yi expertise locale e, expertise locale d'accord naa mhm. mais nag dafa am dafa am loo xam ne dañ ko war a xool est-ce que la personne est prête pour faire ça ou pas hmm. je n'ai rien contre euh, Aliou Cissé pour ne pas le nommer <laughs> mais je me suis dit que il n'était pas prêt ah bi dem finale Coupe d'Afrique euh, Égypte euh, 2000 il, il n'était pas prêt nga moi je, euh, tu sais mon fort c'est pas l'observation mhm. naa la wax benn anecdote bi ma toog naa di seetaan match. xam nga Aliou Cissé il a commencé par par euh, l' olympique. Mm-hmm. avec Karim Séga Diouf. Mm-hmm. avec Karim Diouf ah, ma toog di seetaan ni ñuy joué benn match. def naa contre Mexique la woon ainsi de mm-hmm, mu taxaw ci main courante bi di joxe ay instructions. avec les olympiques. avec les olympiques il était adjoint. Mm assistant. ma gis journaliste bi seen naataango américain yi di wax di ree di wax di ree quoi ñu ne c'est la première fois de leur vie ñu gis un adjoint taxaw di joxe ay instruction xam nga aux États-Unis dañuy respecter hiérarchie kii mooy patron kii moo war a wax mm-hmm. après loolu dama ko ñaawlu ñaawlu ba après bi ma gisee bi yàlla na ko yàlla yërëm Karim Séga génne àdduna laa door xam ne dafa feebaroon moo tax mu bàyyi Euh, moom moo tax mu bàyyi Aliou di taxaw ci main courante bi. Mm-hmm. après j'ai compris quoi. mais destin wu nit kenn mënu si dara dañuy ne moom mooy nekk euh, entraîneur national mu ñëw nekk entraîneur national. mais il n'est pas prêt. il mm-hmm. n'est pas prêt kon nga jàpp ni Aliou euh, ci jamono ji amul amul capacité pour diriger l'équipe nationale du Sénégal dafa tëlee loolu nga jàpp. il il s'est beaucoup amélioré. Ah. ça il faut le dire il s'est beaucoup amélioré mais pour prendre un exemple beaucoup yow su yow bi ngay door a jàng dawal. Hmm. suñ la joxoon suñ la joxoon uh, Rolls Royce. wala benn oto formule 1 xam nga doo si génn. Hmm. waa mbir yi da ngay def ndànk-ndànk rek. voilà da ngay jël R4. jël R12 hmm. ainsi de suite après door jënd Rolls Royce sa jëkkër su la jëndoon Rolls Royce doo doon Rolls Royce. parce que wóor na ko ne su la ko joxee nga xam ne soo bësee pédale bi rek mu dem 200 kilomètres à l'heure kenn du jàngee dawal ci. oto boo xam ne 200 kilomètres à l'heure lay daw soo laalee pédale. kon problème bi coach bi exactement il faut il faut il faut toucher le, le truc euh, avec, avec le mhm. exactement ça parce que man je, je bi ma sama première match nawetaan mhm. xam ñaata la ñu dóor 3-0 mhm. noo ko gis nga dama toog ci banc yi <laughs> noo ko dundee woon. ni ma ko dundee. su <laughs> ma ko dafay reelu sax. je n'avais rien <laughs> dama gis bal bi di jaar fii gis nga toog ci tribune ak nekk ci terrain di football ak toog ci banc. di coacher am na ngandam différence une très grande différence parce que mooy pression bi ñu lay gis nga soo toogee. Hmm. par exemple comme yow nii xam nga yaa ngi diriger kii bi nii mais ce premier jour. bi ngay diriger émission bu mel nii c'est pas la même chose que aisance bi nga am nii. waaw moo tax may nag am na amélioration par rapport ak Aliou Cissé bi mu yoree équipe bi ak léegi am na ay jéego yoo xam ne def na ko ci mais ba léegi euh, jafe-jafe mooy ñu remporter un trophée continental. xam nga kon lan la ñu euh, war am na am na benn détail bu ndaw boo xam ne nit ñi duñ ci def attention. dañu ne ancien joueur il a été capitaine. Mm-hmm. ñu ne oui c'était la euh, man parfois je vous je vous la balle vous les mm. le public. yaa leen ko indi. parce que vous les voyez c'est l'aboyeur. Mm. diriger une équipe c'est pas seulement aboyer c'est pas seulement crier. c'est avoir un projet de jeu. Mm. avoir un projet de jeu avoir le sens de l'observation. Ah, am na ko di. ma jox la benn ma firndeel la benn affaire. Mm. gis nga bi ñuy éliminer coupe du monde. Mm-hmm. pour ñu jàll deuxième tour dama lay jox benn détail rek. Mm-hmm. lan moo pour yow lan moo ñu éliminer. bi ñuy dem coupe du monde bi passé. coupe du monde bi passé qu'est-ce qui nous a éliminé. carton carton man j'étais en Russie. maa mhm. xam nga yow yaa nekk de. mais. fair play ci carton. carton. Mhm. voilà problème de management. naka et je l'incombe ça à euh, staff technique. xam nañ ne au départ ku raw. Mm. point. Mm. day jàll deuxième tour. Mm-hmm. ñu ne su dee da ngeen yem lépp lépp lépp. fair play la ñuy seet. Mm-hmm. xam nga. Mm-hmm. ñu gis parfois je le nommé mbay Niang. Mbaye Niang moo ñu éliminé. naka. moo ñu éliminé Mbaye Niang bu ren. Mbaye Niang moo ñu éliminé. <laughs> kii naka m'excuse je le dis parce que c'est une observation technique. Mm. man su may diriger sama équipe mu wóor ma ne carton mun na ma éliminer. Mm. dafa yem comme point. est-ce que comprendre nga la. Mbaye Niang match avant avant avant dernier match bi. am na carton. Mm-hmm. loolu danga koy gérer dans les vestiaires moom c'est le numéro 9 c'est le dernier joueur c'est le joueur le plus éloigné de nos buts. Mm-hmm. pourquoi muy créer carton da nga koy wax danga koy ne prochain match bul tàggale bul bu max kenn parce carton yëpp nag la ko amee dañu sànni bal bi en l'air su jógee mu génnee concam mais mais xam nga ay tàkkale ak yooyu yëpp daa bokk ci football baax ma rek asma dafa nekk ci point bu am solo xam nga yooyu yëpp dafa bokk ci football. te dina la toll foo xamante ni. ñaari camp seen distance mhm. yow ma ma jàngal tuuti football ñaari camp yi seen distance. <laughs> la. <laughs> minimum minimum cent mètres la. minimum <laughs> le minimum c'est cent mètres ou mhm. mi nekk ak quatre vingt dix bi laa joxee de quatre vingt dix mètres. su lu muy taakale ba di am carton ban ban ban ban ban njëriñ la ñuy amal. après aussi soxna tey ci euh, ñu dellu ci coupe bi euh, tey dañu gisoon ni moment bi ñu doon dugal euh, ki nga xamante ni mooy Crépin Diatta. Mhm. dafa daan yéex alors que c'était un homme de match bu duggee rek stade bi day yëngatu on rencontre de la vivacité ça <laughs> rejoint un peu coach ci ci ci thèse am peut-être. nga ma sax ci si ci ci sama wax. <laughs> merci pour ça gis nga bi ma waxee affaire journaliste yooyu waxoon ci affaire Aliou Cissé. waaw yeneen journaliste. defoon nañu benn interview seen benn naataango def interview bi ñu dajeeg Colombie bi ñu dajeeg Colombie. Mm-hmm. muy interview bi c'était le numéro 10 colombien ou bien numéro 12. Mm-hmm. mu laaj ko mu ne ko ah vous vous avez un gros morceau. mu ne ko ban gros morceau. mu ne ko vous allez rencontrer le Sénégal le Sénégal ak ak liste bi mu yoree noonu. Uh-huh. c'est c'est un c'est un gros morceau xam nga lan la colombien bi tontu. avant le match. Ouais. le Sénégal est un tigre en papier. ah oui. oui ma ne ko comment waaja ne ko mais comme un tigre en papier ak ak ak liste bi ñu yoree gisu ay ñoom Koulibaly ñoom Sadio Mané ngi ci biir mu ne mu ne ko mu ne ko on a remarqué on a que le milieu de terrain du Sénégal c'est des paresseux. ce dañoo tayal dañoo tayal dañoo mm-hmm. tayal. mu ne ko comment mu ne ko parce que quand il s'agit d'aller en en en avant il n'accélère pas quand il s'agit de se replacer. <laughs> il ne recule pas très vite. mais a qui la donc nag la. effectivement mooy mooy fi ma fi ma teg sama baaraam mooy fi ma teg sama baaraam. mooy li n'ont pas le sens de l'observation. amuñu lecture de jeu. lecture de jeu te moo tax ma ne la am na loo xam ne étape par étape la étape par étape. da nga dund. Mm-hmm. étape par étape tu vois. <laughs> Ba nuyu naa ma dalal la rek maa gis ni aussi imprégné toujours par le foot. oui exactement Asma ah, je suis bien dedans je suis dans le bain en tout cas je vous dis bonjour di la fay di nuyu suñu invité maa ngi koy déglu avec <laughs> attention. di nuyu Louisa nuyu Soxna aussi un plaisir le bokk plateau bi nuyu aussi nos amis fidèles téléspectateurs. en tout cas macha allah am dalal ci bésum àjjuma ji euh, Soxna Fall ñu ñu desandi ba tey rek rab gi mais c'est important parce que sénégalais yu bëri xalaatoon nañu li ni mel euh, ci euh, li nga xamante ni moom la ñuy reprocher en quelque suñu coach Aliou Cissé waaye tamit est-ce que comme ni nga ko waxee tey jii nii euh, ki nekk si banc de touche ki nekk si mid terrain bi ak nga xamante ni moom mooy seetaan biir këram ak ki nekk stade li ñuy dund xaal bi ñuy dund xëy na du bokk ba tax ne moom dafay baax mu leen di déglu peut-être aussi ngeen jege ko est ngeen jéego yooyu pour te dire, pour être. Tu sais, moi, je prends toujours le long chemin. man je n'aime pas les raccourcis. Ah. Je n'aime pas les raccourcis. Je n'aime pas les raccourcis. Pour te dire, avant, avant Coupe d'Afrique, ma, ma, madame Coupe d'Afrique, avant Coupe d'Afrique, am na ay personnalité yu nekk fédération dam leen contacter mane ne leen ma ne leen on a on a la on a la meilleure formation sur le papier. Tout à fait. On a la même meilleure formation sur le papier concernant euh, Coupe d'Afrique bi passé on a la même meilleure formation sur le papier. Mhm. mais soo leen si jógulee on va perdre. donc ñun théorie daal dañ ciy aay. dañ ciy aay bindum bi dañ ciy aay waaye jëf bu ñëwee dañuy dellu ginnaaw. dañuy dellu dañuy dellu ginnaaw. ma ne ko suñ ci suñu problème ba tax mënuñu fexe ba indi coupe ba tey suñ ci jógulee coupe bi duñ ko gagné ne ko. tu sais am na loo xam ne nit ñi duñ ci def attention les observateurs ça veut dire le le public là depuis dinaa la pose jox benn firndeel depuis bi Samoura nekkee fed FIFA FIFA est-ce que Sénégal je vous pose la question est-ce que Sénégal mus na nekk euh, groupe de la mort depuis bi Samoura nekkee FIFA in instance internationale yëpp dafa am lu ñuy wax lobby dañuy jàppalante. Hmm. waaw dañuy jàppalante gis nga avalanche bu mu demee bu muy waaj a dem. Hmm. Brésil gagné na coupe du monde. Hmm. pour Brésil gagné coupe du monde naka la demee bi ñu naree dajeek Argentine. bi ñu naree dajeek Argentine on a tout fait dañu non ah, du moins bi bi Argentine nekkee foofu y avait naa la bas coupe du monde bi ñu organisé woon États-Unis ils ont tout fait ba créer Maradona naa ñibbi c'est pas un fait banal. mais mais kon lobby yooyu Sénégal amagu ci de. parce que taxaw bu muy gagné dara ñun France bu muy gagné. Ah. coupe du monde lan moo daloon Ronaldo avant le match. yooyu yëpp nit ñi duñ ci def attention c'est des trucs yoo xam ne dañ ci bàyyi dañ dañ ci war a bàyyi xel nous on a Samoura. Mm-hmm. on a Samoura Sénégal rejoué na fi match. waaw mais mais. c'est la deuxième fois muy mës am dans le monde. dans le monde du foot. waaw mais loolu c'était c'était c'est pas c'est pas gratuit. nit ñi dañuy def ne c'est gratuit c'est parce que du question femme bi moo tax de. Mhm. mais dañ ko bàyyi xel quoi koy beral loxo. ah oui. waaye ñi koy beral loxo. ci nan. dañuy dañuy dañuy def loo xam ne musul am. mais loolu à rejouer nawetaan bii bu gën a yomb fii Sénégal ah, nawetaan suñu la dóoree ci terrain. Ah. waaw mais boobu boobu moom Sénégal moo nekkoon ci ci ci dëggam. ndax ñëpp seetaan nañ match bi décision arbitrale bi jaarul yoon. mais en dans le règlement. Mhm. match kenn du ko arrosé. Ah résultat sur le terrain la ñuy la ñuy homologué. d'accord ñu jeexale rek ak asma baal ma mu jeexale rek ak football local tam. sa perception football local bi jafe-jafe yaa ngi fi euh, surtout ren pandémie bi ñëw gën koo yokk ñuy wax ko play off ak play down xamaguñu ndaxam loolu la ñuy def en novembre ou bien dañuy am temps pour jouer te levé guñu tamit euh, li nga xam ne mooy suspension bi ñu ko def yow sa gis-gis football local dafa sooxe trop trop euh, naka nga jàppee na noonu lañ mën a def ngi suqali ko am nga football pour lépp loo gis rek ay jumtuwaay la. Hmm. gis ngeen seen studio bi macha allah. ci nit ñi suñu ko xoolee day rafet ñu bëgg a seetaan gis mais nga nar ne da ngay développer sa football. joueurs yi comme ni ñu ko wax nii gis nga joueurs yi ñu ngi essayer créer syndicat parce que dégg naa démb ci benn. ci benn média ñuy ne am na am na club yoo xam ne ça fait six mois fay ñu seen joueurs yi. fay ñu seen joueurs yi waa Sonacos a ngi nii bàyyi nañ seen seen milieu affectif dem toxu Kaolack. Mhm. parce que am terrain bi nekk fële Diourbel baaxul. yooyu yëpp yooyu mooy tax football bi mënul dox jumtuwaay dafa am jumtukaay dafa am solo ci sooy dox benn mbir. d'accord waxtaanee rek jeexale ak euh, programme yi nga xam ne war na am tamit euh, ci rek weekend bi comme ñu ngi wéyal seen ay championnat euh, tey jile rek ñu mën a jàpp foofee ca Espagne Séville ak Real dina ñu daje ñu fàttali leen ni équipe bu mag bu ponkal bi Real Madrid jëlaat na première place bi kon moo jiite Juventus ak Lecce dinañu ko wéyal suba ak gannaaw suba jëm ci wàllu programme Asma jaajëfal nañ la Joseph Bass bi moo ñu moo ñu xocc yaa yeneen rubrique dañuy xaar merci sa disponibilité également kontaan naa trop ci teewaay bi te defe naa du nekk benn bi dinañ mën a defaat beneen ci beneen yoon mhm. incha allah rabbi non am na solo lool ndaxte mm. mbirum mbirum arbitre yi tamit faw mu dikkaat ngir ñu ñu dellu si ndax léeg nga gis match neex ñu daal di euh, yàgg na fi am surtout ci match local yi nga gis <laughs> arbitre yi ni ñu leen di kiwee euh, on leur rejette souvent la faute aussi mhm. euh, mën na am mu bokk ci lobby yi ngay wax ci football waaye xam naa ni temps bi moo ñuy xaw xoj rek <laughs> mënuñu mënuñu <laughs> d'avoir été en notre compagnie ci naka ñuy daal di dem rek Luisa ñu jëli musique bu ko defee ñu déglu tuuti zika Aïcha ñu dalal Fama baay ici tout de suite Aïcha Fama Ba ñu fas yéene tey nag mm-hmm. euh, fàttali nii rek euh, dañoo am naqar ak tiis euh, ci tarixa ci jaañeetu tey ji ñu gis ni nii xalif général Thiénaba moom wàcc na liggéey ñu di masaw bu baax a baax encore une fois toute la umma islamique ñun ñi ci lañ bokk di masawwaat di ñaan yàlla yàlla na yàlla yàgg di yokk seen leer te tas ñu ci seen barke waaye it kii wàcc liggéey démb it di porte parole des des Tidiane li nga xamante ni moom mooy Tivaouane mm-hmm. wax fa dëgg yàlla moom it nekk koo xamante ni euh, ku baax la euh, euh, mën na reetaan mën a dalal jàmm nit mën na dox jàmm it mu nekk Pape Malick si moom it mu wàcc na liggéey démb ñu di masaw franchement toute la umma islamique et surtout la tarixa ci jaañeetu di bokk ak ñoom naqar gi moo tax nag ñu fas yéene rek déglu zikar daal tudd yàlla tuub ak sant macha allah Asma comme ni nga ko waxee rek ah, euh, di jaale ñëpp euh, di jaale euh, umma islamique di jaale tarix tijaani di jaale képp koo xamante ne taalibe Cheikh nga rek képp kuy taalibe sëñ kër si képp kuy taalibe Mame Maodo Malick si ñoom ñëpp maa ngi leen koy jaale bu baax a baax di ko jaale waale sama bopp di ko jaale sama ay mbokk ndax nekk na li nga xamante ne démb dañ koy yewoo mu metti lool mu nekk loo xamante ne daf ñoo daal di bette rek ba tax na ne métit bi yëpp ñu ngi koy bokk ñëpp di leen ko jaalewaat Sénégal yëpp bu baax a baax Euh, Asma euh, bu ma ko mënoon sax tey du ma ñëw mhm. mais comme exigence de toi ak euh, de liggéey bi ak li nga xam te ne mooy professionnalisme rek ñu daal di ci ñëw ba tax na nekk wéykat yi wéy nañu lu ne def nañu lu ne tagg nañ fi tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi mag yi nga xam te liggéey nañ lu bëree bëri ci réew mi donc kenn ku ci nekk muy maam Sëñ Touba di maam Maodo Malick Laayeen yeeg ñëpp ñëpp ñu ngi woy nañ leen ba tax ne rek tey euh, dañ koy daal di woyofal rek jël ci ñi nga xamante ne woy nañu ci sëñ Babacar si woy ci tarixa Cheikh euh, ñu daal di koy seetaan ñu tànn soxna Zeynab gën bëggoon naa sax mu nekk suñu invité waaye xam naa vendredi prochain lay daal di doon ñu daal di seetaan vidéo boobu barkeelu ci rek ci mag yooyu noonu ci àjjuma bi dellu si www.mikeys.com amoon na solo lool yal na yàlla wéral baat bi. Mhm, allahuma amiin kii nag mooy soxna Zeynab Thiam euh, macha allah moom itamit muy taalibe Cheikh euh, boo leen demee ci euh, chaîne YouTube am rek di ngeen gis toutes ces vidéos ba tax na rek moom itamit ci ci tarixa Cheikh rek lay daal di woy ak ci tarixa yeneen yëpp waaye ñu gën ko ràññee nag ci tarixa Cheikh mu di leen woy bu baax a baax bii nag mooy sëñ Babacar Sy moom la ko daal di dippee rek te ñu ni tamit ñu daal di leen koy mayaat rek ndax boo xoolee Pape Malick mi nga xam te ne moo nekkoon porte parole des Tidiane moom moo nekkoon. caatu sëñ Babacar Sy mu bëgg ko lool nag soppoon ko lool macha allah euh, ci ci témoignage yi ñuy dégg démb rek euh, dañuy dégg ne caatam la woon bu mu jëloon bëgg ko comme caat yi nu leen waajur yi di bëggee rek noonu yàlla na ko bàyyam di sëñ Babacar si daal di koy teeru ak maamam maam Maodo Malick donc may nañ leen ko yéen ñii rek te yàlla tas ñu nag soxna ci seen barke. am na solo lool ah. donc euh, waa canaba yi tamit canaba canaba yi ñu ngi leen di jaale ñoom itamit tey yeewoo nekk naqar boobu ñu di leen jaale bu baax a baax seen xalif général ba tax na rek mën nañu wéyal asma daal di jàll ci deuxième vidéo bi nga xamante ne waa bidéo bu bees la ñooñu di ay taalibe baay waaye tamit woy nañ fi Allah woy fi Baye woy fi lu ne ñoom i tamit woy nañu rek euh, ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane Chérif euh, radia taala euh, moom it woy nañ ko màggal ci Mam Maodo Malick màggal gi tarixa Cheikh ñu ci jaar yëpp ci xalifa gi ñu daal di seetaan vidéo boobu noonu dellusiwaat Ahmed Tidiane Chérif euh, buñ koy tudd rek da ngay da ngay am jàmm. ndaxte mhm. sa xel dafay dal. Mhm. nekk na nit boo xamante ni liggéeyal na yàlla la tax ñu mën koo euh, tàppal mandargay ñàkk caaxaan. Mhm, kon képp kuy taalibe Cheikh daal wax dëgg yàlla may naa la ko. macha allah Asma macha allah mi ngi noonu donc Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala euh, ñu bëri di dem di ko ziyaari fële ca Fès mu nekk nga xamante ne. dem naa fa ñaari yoon macha allah dem naa fa ñaari yoon te pourtant catholique Cynthia lii la suñu maam yi liggéey te mu rafet. dëgg la dëgg la allah am na solo lool it yàlla nañ ci yàlla barkele boole rek ñu ni tamit ñu daal di dem ziyaar euh, daal di def tamit les cinq piliers de l'islam mooy euh, li bokk ci les cinq piliers de l'islam muy tamit euh, dem Makka daal di ziyaar tamit sang bu mag gi en tout cas yal na ko yàlla may ñëpp ci àjjuma ji ak ci ñi nga xamante ne ñoo fi daal di jóge rek ci seen barke ci seen leer ak ci barke ñi nga xamante ne moom mooy seen i ay waajur que ni yal na yàlla may gudd fan ak wér euh, waa Sénégal may ñu jàmm ñun fii ci biir Sénégal may ko tamit képp ki nga xamante ne ab ndaw nga te am yéene yóbbu sa yaay màkk wala sa papa màkk yal na la ko yàlla yombalal may waajur gudd fan ak wér euh, ci barke euh, kilifa diine yi nga xamante ne yëpp ñoom ñoo ŋànk Sénégal ndax euh, daanaka ci seen barke rek la ñuy daal di woyee yàlla na jàmm yàgg euh, ba tax na rek asma lii laa indi woon di profito di jaalewaale tamit ki nga xamante ne moom mooy soxna Penda bu sëñ Mbay si Abdou depuis Tiwaawan moom i tamit maa ngi koy jaale bu baax a baax di ko jaale sëñ bi ah, di ko jaale tamit euh, Adja Maru Ndiaye ak Adja Seyni ak képp ki nga xamante ne taaliba Cheikh nga rek maa ngi lay jaalewaat bu baax a baax di leen jaajëfal ñu di la jaajëfal yow it bah ce fut avec un immense plaisir aussi il est, immensement partagé. merci beaucoup <laughs> c'est gentil. Aïcha ci naka noonu nag dañuy daal di dem rek jëli euh, suñu page publicitaire bu ko defee on retrouve le plateau. Aïcha am de ñeme nga ma bett trop bàyyi ngi may def Aïcha merci beaucoup charmant euh, téléspectateur merci à nos partenaires aussi euh, ci naka noonu nag la ñuy daal di dem esthétique ah ñu dalal ki nga xamante ni mooy Luisa Diandi Aïcha ñu waxtaanee tey Luisa costume africain j'aime bien quand on parle de l'africanité ah. <laughs> <laughs> c'est important c'est important. tout à euh, euh, comme ni nga ko waxee tey costume africain la ñuy waxtaanee alors il m'a juste été donné de constater que ne. Euh, costume africain nit ñi xew na c'est à la mode mais euh, de faire une comparaison entre costume africain et le costume moderne gain de temps bi ngay am ci boo jëlee costume africain di ko sol mm-hmm. alors que à côté boo yeewoo le matin casse bi nga xamante ne moo nekk ci tànn chemise tànn ceinture tànn veste donc assorti ma assorti li ngay war a assortir le matin temps bi ngay jël pour seet lan nga mën a sol bu di costume ngay sol cravat tout ce qui est euh, mélange de couleurs et tout tu gagnes énormément de temps bu dee costume africain la alors c'est quoi un costume africain quand ou comment le porter dañ dem xool ki nga ki koo xamante ne ci loolu lay yëngu mu wax ñu exactement c'est quoi le costume africain et euh, voilà et tout ce Alors, euh, Turquie, disons que concept la boo xamante ni c'était pour euh, vraiment Euh, ñëw dans la mode africaine benn prototype moo fi amoon déjà boo xoolee bu baax manche veste la woon comme ni ñu koy tuddee manche veste boo xamante ni style bi euh, baat bi la ñuy defar une braquette brodée ah. léegi nag ñun indi nañ yeneen il y costume africain et ce qu'on appelle obasanjo ah wala wala wala nit ñi ni koy wooyee diaspora ça dafa différence te différence boobu noonu il faut nit ñi xam ko te costume boobu noonu coono gi ñu ciy daj ci costume moderne bi même coono bi la ñuy daj ci costume africain bi parce que les manches boo ko xoolee bu baax ay manches bu veste normal la. bu fekkee ni yëre bi da koy sol pour euh, dison xam nañ ni réew mi bëri na jullit lool dinañ bëgg di jàpp. chaque fois par exemple boo bëggee jàpp nga bëgg a simmi bi problème la nest pas indi nañ innovation buy tax par exemple yow di nga mën a retrousser tes manches même su fekkee ni sax manche veste la n'est-ce pas euh, beneen affaire bi mooy euh, bu njëkk ba da nga daan gis rek nit ñi dem jënd ji ay bouton def ko ci costume bi ci ci loxo costume bi no non handmade lañ wax Sénégal dafa am particularité am Afrique dafa am particularité am te loolu euh, mooy travail à la main boobu nga xamante nii ñu ngi koy def fii ñu ngi koy réussir créer des éléments de personalisation yuy tax ñu ñu ñu delloo ñu suñu identité africaine. li anglais di wax handmade euh, dafa am importance fii ci Afrique da gis ni euh, soo demoon marché léegi da ngay gis ay jigéen yoo xam ne dañuy jënd tissu euh, di ko ràbb ah, Euh, ba mu jeex donc euh, particularité boobu noonu euh, ñun moom lañuy jël ci suñu suñu aada suñu cosaan boole ko ak savoir faire bi nga xamante ni dafa jóge Europe wala États-Unis ci seen costume yi ñu mixé ko donc soo xoolee bu baax xaftaan yi ni mu doon yaatoo dañ koy dañ koy compressé mu doon ay ay ay ay près du corps ah ñu indi par exemple des manches yoo xamante ni xëy na dafay am doublure n'est-ce pas indi tamit broderie parce boo xoolee bu baax Afrique Euh, broderie lañ gën a bëgg ah, voilà loolu daal mooy mooy costume africain bi. Luisa Diagne kii daal moom wuyu na turam te ñawe mi il le porte très bien mais yéene naa si Pape Assane c'est trop Pape Assane. bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa wa barakaatu. sa yéene rafet na yàlla na la rafet de li ma gis nii ci télé bi. kaar kaar kaar euh, di nuyoo di jaale di wax ñu ngi jaale Sénégal yëpp sunu maam sunu papa wayjur bi fi jóge démb di sëriñ Pape Malick Sy ñu xeyaat tey ci suba am beneen tiis sunu mbokk mu la ca Canaba ca am Tidiane Seck ñu wax ñu def moom tam daf fay jóge Euh, diis na mhm. affaire yi diis na te mag ñi mag ñi dem nañu yal na yàlla yokk seen leer taas ñu ci seen barke te def jàmm ci Sénégal amin amin waaye amin yal na fii jàmm ji yàgg di sax euh, ci naka noonu nag li ñuy desandi ba tey rek ci costume africain dina wax naa leen ko africanité prime waaye Louisa ah, dafa mel ni yow da nga wuyu te sa turu rubrique tey waaw tamit bu may def rubrique euh, di waxtaane ci li nga xamante ne mooy costume africain oui Levez-vous, je me lève. Avec plaisir. Elle est magnifique. Euh, Luisa, on t'autorise, hein, vraiment. Elle est magnifique. <laughs> Bah voilà. Mais du Sénégal. Joli. Euh, c'est ah, magnifique. Magnifique, magnifique. Non, lui, ça a bien sonné. aussi, euh, Alors, je rappelle juste que le costume africain, day dem fépp est ah, particulièrement apprécié de par sa simplicité. Aujourd'hui, je dirais que ce sont les costumes euh, pour les grands moments. Mm-hmm. Tey jii ki nga xamante ne mooy président de la République di ministre di lépp di képp koo xamante ne ci bureau lay liggéey sax mm-hmm. war nga mën a tey jii casse-tête comme li ma koy waxee rek bi ngay jël dem di jëndi ay ay costume mhm. aujourd'hui c'est quelque chose qui est euh, fait euh, suivant les coupes sax booy bu costume moderne mhm. donc du coup c'est c'est adapté et, et je trouve que c'est c'est d'une classe c'est d'une classe inouïe qui mhm. ne qui qui n'a rien à voir avec les costumes aujourd'hui euh, modernes donc du coup képp koo xamante ne am nga sax événement bu mag war nga ko mun a sol parce qu'aujourd'hui euh, oh xoolal ma blanc bi Louisa ak finition yi <laughs> ba pare ba pare c'est tellement agréable aujourd'hui parce que euh, dañoo jël juste euh, costume traditionnel bi xaftaane et tout mhm. découper ko euh, def de telle sorte que ça soit modernisé donc du coup c'est hyper important que nit ñi léegi euh, di bàyyi xel euh, made in Sénégal bi li nga des choses qui se font là là là te ki te te xam ne nit ñi mën nañ ko sol tous les jours mën na dem fépp aujourd'hui pare gis nga couleurs yi utilisé c'est des couleurs institutionnelles aujourd'hui moi j'ai dit à, monsieur Diop on gagnerait aujourd'hui dans le milieu audiovisuel ñi nga xamante ne ñooy def journal télévisé journal institution la nit ñi di sol ko nit ñi sol ko c'est transmettre l'amour de l'africanité à la jeunesse et aux téléspectateurs exactement ah, loolu local également consommons local bi ay waay waay waay waay ku ñu euh, en plus euh, tey da nga koy def nga nga am benn style bu particulier boo xamante ne dañ lay koy ràññelee ñi nga xamante ne dañuy sol wax rek da eh, ngay dem ba xam ne lii mooy identité de cette personne en plus euh, xoolal xoolal bu ñu ko jëlee exemple ba tey suñu desee ci Afrique ba Nigéria seen mariage traditionnel yii rek la ñuy sol donc dañ ko mettre en valeur seen yenn cérémonie yu mag yi loolu rek la ñuy sol et maintenant par exemple su ma jëlee exemple je me rends compte que euh, li ñuy wax léegi man très rare laay gis góor bu sol costume costume ah. moderne costume moderne mhm. Mhm. très rare. même ci ministère yi aussi hein les les les cadres mhm. et tout. ils sont plus maintenant dans le style costume africain. Euh, qu'autre chose et mais c'est magnifique parce que tout simplement il est temps de retourner à l'Afrique mère qui est nous il faut il est temps de d'avoir un état d'esprit panafricain c'est-à-dire lépp lu fii ci suñu ay ndaw ñu koy defar di ko promouvoir. comme nii ngeen di def nii di sol nii Fatima Kane fi muy jaar nii euh, comme Soxna Fall nu muy def nii Luisa Diandi magnifique franchement. visa yow da nga bëri ruqan <laughs> visa en plus félicitations à lui hein c'est très propre c'est du sur mesure gis nañ ne fit loolu euh, oh, la Sadio Mané xam nga kii moo moom euh, ci ci ci torki la la la jógee comme li may wax rek te fépp lay dem <laughs> aujourd'hui c'est une fierté aujourd'hui bu ko Sadio gis nga nu mu nu mu ñëpp oui ah, parce que les gens s'attendaient à ce que muy ñëw ak costume et tout euh, cravate euh, tu vois c'est recoin mu ñëw ak euh, costume africain relax et bien fait il est bien entouré bien fait absolument c'est important voilà mm-hmm. mais loolu mooy wane ne aujourd'hui il faut tey jii ki nga xamante ne moom mooy dem jëli prio wala ki nga xamante ne mooy dem jëli defi réunion wam moom wala présider euh, tey ji tal na leneen lu dul euh, xool ban montre lay sol wala quelque chose donc il faut toujours si tu es une euh, personnalité publique il faut toujours être bien entouré mais comme encore une fois il faut promouvoir tout ce qui est made in Sénégal parce que euh, le travail à la main là là c'est c'est c'est c'est raffiné et puis c'est c'est voilà c'est joli c'est joli lépp luñ ci wax sax euh, du ci doy parce que mhm. vraiment nit ñi war nañ koy xool bu baax a baax et puis euh, góor ñi la ñu ëpp gis mais am na ci yu jigéen yoo xamante ne ah en tout cas ah mm-hmm. c'est magnifique hein. c'est très ah, beau c'est mais dafa dafa kii dafa lu ñuy dund la na ko na ko kilifa yi gën a fësal. bu baax sax mm-hmm. gën ci yokk ak ñi di def journal ni ma ko waxee. édition yi édition yi journaliste yi di ko sol na ko président bi fësal. waaw président de la République ko fësal. Mhm. gën a fësal gën ko yokk yéen su ñu amee ay marché comme parfois équipe nationale ñu ngi koy def ah. waaw def ñu ko bu dem ay compétition ak yooyu dañuy gis ay tenues traditionnelles lañ leen di ñawal. Mhm. nañ ci gën a dugal bu baax a baax ngir jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy activé euh, si si milieu Sénégal. ngir mhm. gën a mën a consommer li nga xam ne mooy produit locaux yi. en tout cas l'image est très très très très importante euh, il faut que euh, nit ñi tamit di varier seen style vestimentaire. allier euh, traditionnel et, et moderne, c'est important. Et puis c'est joli, le rendu est très très très très beau. Comme on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais il fait l'homme. donc euh, baax na aussi euh, nit ñi di trier di xam aussi li ñu sol lan la. Mhm. ak euh, voilà fan lañ koy demee outil donc ruq yu baax nii baax na ci daal ñuy. et puis ñu profité di wax aussi que euh, on attend euh, à ce que l'équipe Subatel soit <laughs> soit habillée par Turquie. oui voilà, voilà en costume africain. Uh ah, -huh. Ah. ce serait beau. Oui, un vendredi oui, oui. tout le plateau all euh, turquie. Mm -hmm. euh, costume africain ce serait magnifique. Mm -hmm. ouais, mm-hmm. c'est c'est mm -hmm. pas mm-hmm. mal comme idée. en tout cas Lisa merci beaucoup am solo lool waaw. Merci beaucoup à Monsieur Diop de Torki, à Oumou aussi et à, à toute l'équipe et puis euh, may remercier bu baax a baax ñi nga xamante ne tamit ñoo ñuy seetaan merci à eux tous ah merci subateel seen yëf la ci naka noonu nag euh, waxtu ministère mi ngi jege si euh, damay fas yéene rek nuyu ki nga xamante ni nag moom moom moo ñuy dégtal euh, bés bu nekk rek faram-fàccee bi nga xamante ni moom la waa ministère de la santé lay àndal di Mame Mbaye Mame Mbaye Ndiaye na def. maa ngi lay fay Asma di la ziar si àjjuma ji di nuyu ñi nga bokkal plateau bi. macha allah ñoom it euh, ñu di la fay dafa mel ni yow da nga wuyoo thème du jour bi tey costume africain tu es tout élégant waaw ah, mais c'est normal il faut tam ñu def la promotion de euh, si ñi nga xam ne ñoo nekk au niveau local jàppale leen ci liggéey bi. et puis jàppale leen moo di sol seen i tenue vu que ne ñoo ko moom donc c'est normal. tout à fait alors euh, ñu bàyyi la rek ci fàttali gi laata waa ministère di dikk ci fi ñu toll ci bésum tey. voilà bi ñu leen di fàttali li nga xam ne moom moo fi amoon ni ki euh, euh, démb waa ministère de la santé jaare la ko ci docteur Aloyse Diouf moom dafa ñëw defal ñu le point du jour gis nga ni ki démb lu euh, toll ci 985 ci ay doomu aadama lañ jote testé bi ñu leen testé ba noppi nag ñu gis ne 104 dañoo dikk daal di am mbas mi donc ñoom ñoo yokk ci li mukk ñi amee jàngoro ji si ñoo nee nag ñu gis ne juróom-ñaar fukk yeex juróom yi dañu di ay cas contact waaye ñaar fukk ak juróom-ñeent yi di gis nga benn jour ñu am ci vingt neuf cas communautaire dafay wan na ni euh, jàngoro ji kon euh, lu euh, sérieux la donc faw ñu bàyyi ci xel bu baax cas communautaire yooyu nag digg démb ñu gis leen ci gox yi ci mel ni kon fi nga xam ne mooy Thiès am na ñeent Touba ñett Géejawaay ñetti Mariste ñu am fa ñetti Kër masaax ñett cas Liberté 6 ñu am fa ñaar ci ay cas yëmbal ñu am fa benn mbaaw benn Tëngéej benn grand grand fi nga xam ne mooy Grand Yoff benn Dalifort benn Wakam benn Ngor benn Ouest ñoom fa benn Sicap benn Cité Djilimbay benn euh, benn euh, ci wala sax juróom-ñeent fukk euh, ci ay waay tawat yu nga xam ne nii jàngoro jëf ñoo ñu ñooñu nag mujj nañu leen faj ban wér ñaar fukk ñeent ci ay cas grave la am maanaam ñooñ dañoo lot ba ñu yóbbu leen fi nga xam ne moom mooy euh, Sowétas mu ngoog euh, fukk ak euh, juróom ñeent mu ngoog kon nag manees nañ wax ne kenn wala sax réanimation mi ngi noonu fukk ak juróom ñeent li nga xam ne moom mooy Covid 19 gi mbas mi mi ngi wéy di dicté ay luwaawam ñu jàll ci les localités les plus touchées laata ñuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy euh, xayma bi Dakar ouest Dakar centre Dakar sud Dakar nord loolu dafay firndeel nii euh, diwaanu Dakar ci capital moom mooy épicentre bi ndax euh, léegi ñu yegg kon junni ndax Dakar ouest moo sëppale mi ngi 925 fii nga xam ne moom mooy Dakar nord moo ci gën a ndaw la mi ngi toll ci 836 juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn. Touba daal di ñëw ak juróom-ñetti fukk ak ñaar voilà minu euh, docteur Aloyse Diouf ñëw na ñu bàyyi ko. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous fais lecture du communiqué 117 de ce vendredi 26 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1057 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,4%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 79 cas contacts suivis par nos services, 15 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne, 27 cas issus de la transmission communautaire répartis entre jurbel 3 cas, Fatick 3 cas, Kaolack 3 cas, Guédiawaye 2 cas, Liberté cas, Touba 2 cas, Dakar Plateau 2 cas, Parcelles Assainies 1 cas, Mbao cas, Yoff cas. Pikine un cas Mariste un cas Tivaouane un cas Mermoz un cas Khombol un cas Sicap Baobab un cas et enfin Joal un cas. patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 27 cas graves. sont prises en charge dans les services de réanimation. Quatre nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce jeudi 25 juin 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 6354 cas ont été déclarés positifs. donc 4193 guéris 98 décédés et donc 2062 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue d'exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. tey bésu àjjuma ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juin 2020 ministère bi gàlloo wërgu-yaramu askan wi ak action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróom fukk ak juróom-ñaari test yi ñu def téeméer ak ñaar fukk ak benn ñoo ci positif maanaam juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent yi di ay cas contact fukk ak juróom yi di ay cas importé ñaar fukk ak juróom-ñaar yi di ay cas communautaire ñu gis leen ci jurbel ñett Fatick ñett Kaolack ñett ñaar ci Géejawaay ñaar ci Liberté 6 ñaar ci tuuba ñaar ci Dakar Plateau benn ci Parcelles Assainies benn ci Mbao benn ci Yoff benn ci pitin benn ci Mariste benn ci Tivaouane benn ci Mermoz benn ci Xombol benn ci Sicap Baobab ak benn ci Joal fanweer ak benn ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak juróom-ñaar ci suñu malade yi ñu ngi ci service réanimation yi ci bésu démb ñeenti malaat ñàkk nañ seen bakken ci feebar bi ñuy wax coronavirus ci suñu structure de santé yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ci kaa bu njëkk ba Sénégal waññi na juróom benn junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeenti kaa yu positif ñeenti junni ak téeméer ak juróom ñeent ak ñett ñoo ci wër juróom ñàkk ci seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom benn fukk ak ñaar ci suñu hôpitaux yi ñu leen di traité ministère bi gàlloo wërgu-yaramu askan wi ak action sociale mu ngi dellu di ñaax askan wi ñu gën a sàmmanteeg tegtal yi nga xam ne moom la ñuy joxe bés bu nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam bu baax docteur Aloïse Diouf moo ñu doon defal le point du jour fi mu daanelee lu am solo la di ñaax askan wi ñu bàyyi xel bu baax les gestes barrières waaye nag euh, point bi tey jii lii la euh, joxe xam ngeen ne kon lu toll si junni ak euh, juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay doomu aadama lañu testé bi leen testé ba noppi jàppale ne kon lu tollu ci téeméer ak ñaar fukk ak benn dañoo ñëw dolleeku ci li mukk ñi am woppi covid 19 gi ci loolee nag juróom-ñaar fukk yeeg juróom-ñeent yi dañu di ay cas contact waaye fukk ak juróom yi di ay nga xam ne ñu ngi jaarale aéroport international bu Blaise Diagne waaye ñaar fukk ak juróom-ñaar yi di ay cas communautaire cas communautaire nag tey jii dañ leen nemmeeku ci gox yu ci mel ni Diourbel Diourbel ñett la ñu fa am Fatick boo fa demee ñett nga fay fekk fi nga xam ne mooy Kaolack am na ñetti cas communautaire Guédiawaye boo fa doxantoo ñaar ci ay communautaire am na ko tey Liberté 6 ñaar Touba it am na ñaar ci ay cas communautaire Dakar Plateau ñaar ci ay cas communautaire Parcelles Assainies benn Mbao benn Yoff benn Pikine daal di am ah, benn Mariste benn Tivaouane benn ah, fi nga xam ne moom mooy Mermoz am na benn Xombol benn ah, Sicap tamit am na Sicap Baobab am na benn Joal dikk am benn ci ab cas communautaire mu ngook fanweer ak benn Euh, si ñi nga xam ne dañoo woppoon faj nañu leen euh, ban wér kon nag 31 euh, guéris la am ñaar fukk juróom-ñaar ci ay cas grave ñoo ñee jàngoro jël leen ba ñu sonn jamono ji ñoo ngi Sowétas ñeent ci ay décès la ñu am ñoo si ñàkk seen ak bakkan ñoo dooleeku ci li mukk ñi am mbas mi bu mu duggee Sénégal ak léegi mat na ñetti ak ay fan xayma gi nag ngi toll si juróom benn junni ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñi nga xam ne nag faj nañu leen ban wér ñeenti junni toftal téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett 98 décès juróom-ñeent fukk ak euh, juróom-ñett ñaari junni yu toftal juróom-benn fukk ak ñaar jamono ji ñoom la wopp wopp gi tëral ñu leen di faj te euh, wërëgunu nu nu koy defee nag bés bi yàlla sàkk dañuy dem fekk ji Idrissa Diémé sa Kër Massar jamono ji may addu ngeen yi teewlu mi ngi si forêt classée bu mbaaw di ñu xaar ngir mu defal ñu le point du jour Idrissa Diémé ziar naa la si àjjuma ji nga defal ñu le point. ma lay fay di nuyu waa plateau suba teel di wax ni bésu àjjuma jile point départemental lay doon xam ngeen di ba mbas bi tàmbaleeg léegi mu des nañ wax ni egg nañ ci 622 cas ci ñeenti district sanitaire yu nekk ci biir département bu Pikine ci noonee sax gis nañ ni que Mbao quasiment moo nekk épicentre bi moom moo ci ëppale moom euh, jamono ji ñi addo toll na ci li nga xam ne moo nekk vingt quatre cas yoo xam ne issus de la transmission euh, communautaire la nees nañu wax ni sax xaw na yokk ndaxte tey jii nii bu ñu compté yeneen ñaar yu ñu am kon donc nees nañu wax ni ñu ngi tollu ci deux cent vingt six cas yoo xam ne yu positif la mbas mi tàmbaleeg léegi euh, ci biir district sanitaire bu Mbaaw ni ki noonu itam gis nañu que Pikine huit cas cinq cas autant pour moi yokku na ci tey parce que démb ñu ngi woon ci cent quarante trois kon donc tey mënees nañu yokku juróom ci yooyee mu nekk donc euh, cent quarante huit yoo xam ne la kon donc xam ngeen ni démb itam maa ngi leen ko doon wax euh, Kër Massar on était à cent quarante ba léegi ci boobee lañ taxawandéegum si cent euh, quarante et un cas yooyu ba mbas mi tàmbaleeg léegi waaye xam ngeen ni mambay bu ñu leen nee cent quarante loolu total bi la waaye jamono ji di teewlu jàppale ni district sanitaire bu Kër Massar 114 euh, cas yu la yoo xam ne ñu ngi ci loxo waaye docteur yi ci yooyee 114 cas mu des nañ wax yoo xam ne génn nañ àdduna yooyu bokkul bokkul ci lim boobu la nga xam ne moo nekk 114 cas jamono ji ji yu nekk euh, ci loxo waaye docteur yi waaye ci yooyee 114 cas moom bay luñ ci mën a jàpp mooy gis nañ ni que cas issu de la transmission communautaire ñoo ci ëpp ci yooyu lim presque boo xoolee 80 yi presque nar nañ ko jege ci li nga xam ne moo nekk cas issu de la transmission communautaire ci district sanitaire bu nekk ci Kër Massar ñu fàttali ni Kër Massar district am ñaari communes yi ñoo ko laal muy Kër Massar ak Malika donte nag cas yu bëri yëpp daanaka Kër Massar lañ ko euh, la fekkee baax ci yooyee cas communautaire sax yu ma leen di wax jàppale ni ñeenti kese ñoo bàyyeekoo ci commune bii di Malika te yooyee ñeenti sax tane nañ ko donc boo xoolee cas yi ñu jot ci commune bu Kër Massar lañ ko jota a enregistré mu nekk point boo xam ne indi leen nañ ko tey ba su àjjuma ji ñu joxante dig daje sans doute lundi lay doon ci beneen numéro lu ñeel wàllum point Covid. jaajëf Idriss Diémé gis ngeen ko xam naa du ñàkk li nit ñi di wax nag moo taxit moom tàmbali naa bi ndax uh, Idriss fu mu daan génn day takk masque léegi nag day bàyyi masque bi mu wàcc Idriss dellul di takk masque yi ndax lool si sensibilisation bi la bokk te askan waruñoo uh, abandonner les gestes barrières mu ngoog di leen fàttali ni kon uh, assouplissement boobee tax na sax mbas mi di gën a di faat te waa kër docteur sonal ne leen lool ndax xibaar dañuy jot bu ñu sukkandikoo ci Mballo Dia Thiam ma nga xam ne moom moo jiite kuréelu syndicat bi am ëmb ñuy liggéeyee ci kër docteur docteur jamono ji ñu ngay faatu te mbas mi moo leen di faat ku ci mel ni kon Sori Cissé agent de santé la bu dëkk sa Kër Massar nee nañu mbas mi daf ko yóbbu waaye ba tey moom it mu jox xibaar bi nga xam ne moom moo di euh, Ibrahima Mbaye alias Mbaye trompette ñu xamoon ko baax nekkoon euh, agent de santé sur l'hôpital principal wala l'hôpital Aristide Le Dantec moom it euh, génn na àdduna te nee nañ mbas mi moom moo ko yóbbu kon nañu bàyyi xel baax ni mbas mi mi ngi wéy di dicté ay loi wam te dina ci baax nag ñu bàyyi ci xel ñu dem ne niñ koy defee saa su ne réew yi euh, euh, Afrique yi réew Afrique yi gis ngeen euh, ñi mbas mi laal bi mu duggee ci réew yi ba léegi mi ngi toll ci deux cent quarante cinq mille neuf cent six euh, ci ñi ñi si ñàkk seen bakkan nag ñu ngi toll ci cinq mille quatre cent cinq ci ay décès la am. àdduna bu wërngal këpp mbas mi tam mi ngi wéy di dicté ay loawam gis ngeen quatre cent quarante mille cinq cent trente cinq euh, ci àdduna bi mu mel kon sax quatre cent quatre vingt deux lay war a nekk xam naa fii dañ see xala jum ñi nga xam ne nag ñoo ci faatu quatre cent quatre vingt deux mille neuf cent vingt trois mu ngoog ñoo si ñàkk seen bakkan ci li nga xam. xam ne moom mooy mbas mi ci àdduna wërngal këpp fii ci Sénégal nag gis ngeen Euh, tableau bi ni mu demee nii cas contact yi léegi ëpp na 5000 euh, cas communautaire di 725 boo ci yokkee yu tey jii mu mel ni kon cas importé yi 134 boo ci yokkee tey jii kon euh, chiffres yi données yi dafay daal di changer docteur Aloyse Diouf moo ñu defal le point du jour tey jii gis ngeen li mu ñu andil li ñu def ñaari test ñu ngi toll ci 1057 bi ñu leen testé ba noppi ñu gis ne téeméer ak ñaar fukk benn dañoo dikk yokk si li limuk ñi am coronavirus gi fii ci Sénégal si ñooñee nag jàppale ne juróom-ñaar fukki juróom-ñeent yi dañu di ay cas contact waaye fukk ak juróom yi di ay cas importé aéroport international Blaise Diagne la jàngoro ji jaare waaye nag ñaar fukk juróom-ñaar euh, ci ay cas communautaire ñu am ko nikki tey jii si euh, bilan bi Diourbel am na sa ñett euh, Fatick am sa ñett Kaolack am sa ñett Guédiawaye daal di say am ñaar Liberté 6 euh, am ca ñaar Touba am sa ñaar Dakar Plateau am sa ñaar Parcelles Assainies foofu am ca benn mbaaw benn Yoff benn Pikine daal di dikk am benn Mariste am benn Tivaouane am benn Mermoz am na benn cas communautaire xombol sama dëkk foofu it am nañu fa benn cas communautaire Sicap Baobab benn cas communautaire Joal dikk moom it am na benn cas euh, communautaire fanweer ak benn jot nañ leen faj ba nu wér ndax wopp gi daf leen jàppoon ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay cas grave la ñu am dañoo lot ba ñu yóbbu leen euh, Sowétas waaye nag ñeenti ci ay euh, décès am nañu ko tey jii la mauvaise nouvelle loolu la kon nag ñeenti jot nañu ñàkk seen ak bakken ci mbas mi bi mu duggee Sénégal ak léegi ñetti weer ak lu teg ñi mu laal ñu ngi toll si 54 infecté la ñoom am waaye nag ñi nga xam ne faj nañ leen ba nu wér ñu toll si ñeenti junni toftal téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett 98 euh, euh, ci ay décès lim googu la faat kon nag mu ngay gën di yokk léegi ñu yegg ci téeméer te yàlla bu buñ fa yegg te mbas mi abal ñu lu toll si ñaari junni toftal juróom-benn euh, fukk ak ñaar ñoo nekk sous traitement ñu ngi leen di faj te wéragunu jaajëfal leen bu baax ci telu bi ziar leen bu baax it ci àjjuma ji su dee soob na borom beneen jotaay àndax waa ministère de la santé ëllëg lay doon du ñàkk ngeen ànd seex bi Mohamed Asma. ñu di la jaajëfal bu baax a baax euh, Mame Mbaye wax fa dëgg yàlla dafa mel ni euh, réew yi def déconfinement yëpp li ci ëpp euh, mbas mi dafay ñëwaat ak doole ci seen biir yaakaar naa ni peut-être problème d'organisation la. Mhm. moom moom moom njàqare boobu la réew yëpp am. voilà assouplissement boo ko déggee nit ñi dañuy bàyyeeku Allemagne am na ci euh, localité bu nga xam ne nii euh, dañu defoon euh, li nga xam ne moom mooy déconfinement bi waaye mu gi dañu delluwaat confiné wu ndax ñi nga xam ne jàngoro ji commencé waat na di defaat yenn ay ravage kon nag Sénégal gis nga bi ñu defee assouplissement wàññi heure yeeg yooyu gis ngeen jàngoro ji deey ni mu commencé bari tey saa bu ñu taxawee fii bu ñu waxul ñaari décès wax nañu ñett tey di ñoo ngi si ñeent ci ay décès kon nag jot na ci askan wi ñu bàyyi xel bu baax geste barrière yi ndax léegi. am na solo am na solo ñu di la bàyyi rek et on te souhaite de passer un excellent week-end incha allah. bon week-end vous également. ok ci naka noonu la ñuy desandi ba tey ci suba teel ñu pare woon rek ci Luisa Diandi ci li nga xamante ni moom mooy esthétique ñu waxtaanee woon euh, costume africain ci naka noonu nak la ñuy dalal rek ki nga xamante ni moom mooy Papa Assane Seck euh, ci actualité on le retrouve tout de suite. alors Papa Sansek Abdou Karim Gueye moom dañ ko admettre au pavillon spécial loolu noonu ñu ko mën a faram fàccele nii tey waaw moom déjà dañ koy ñaanal vraiment Karim son trop trop sonn parce que xam nga nit bu nit buy xeex loo xamante ni amoo dooleem mhm. maanaam ngay xeex dara te yow amoo doole xeex loolu lu dul sa sa kàddu rek dafa dafa diis te ki ngay xeexal am possibilité yu bare ubbi leen jàkk yi lañ fi waxoon loolu leen ko téewee ubbi leen jàkk yi euh, loolu la fi wax lew na seen am problème mu réagir daal di ne <coughs> nangam jëmale ko ci force de l'ordre yi loolu lañ ko téewee mais je pense que comme démb dañuy wax ne dafa am malaise fële ca euh, fa mu newoon ca mhm. prison ba ñu yóbbu ko pavillon spécial selon li ñu rapporté euh, dañuy dañuy wax kilifa yi ñu ko bàyyi mu dem. nañ ko bàyyi pavillon spécial ah. yóbbu nañ ko fa pour faj ko. waaw nañ ko bàyyi médecin traitant bi ko doon topp. ñu wax ne feebar boobu dafa difficile te kenn daanaka presque du ko faj fii nañ ko bàyyi mu lijjantiku. ah ñu ñu ñu bàyyi ko ak njabootam parce que. Mhm. c'est pesant te jaru ko bàyyi nañ keneen bàyyi nañ keneen muy def lu ñëpp di gis. Mhm. def njombe. Mhm. waaw te moom dafa wérul sax. voilà wérul quoi nañ ko bàyyi. dafa wérul waay ku wérul da nga koy da nga koy baal te nag te nag te nag aussi benn affaire ñu wax ko dañu kaa wax de. Hmm. dañu kaa wax nag suñu kilifa yi ginnaaw bi leen nuyoo ñoom ñëpp. ci hmm. àjjuma ji ziar leen dañ leen di wax ne. àdduna du yàgg ba ñun ñu ëppale leen ci réew mi. waaye àdduna du yàgg ba ñoom it ñu ëppale ñu ci réew mi. joxante ci rekk fi ne. dëgg waaye ñun Sénégal ñoo leen dénk li ñu leen dénk nag bu ngeen ci abusé. Mm-hmm. ëllëg dafay ñëw de. gis ngeen sunu maam yeeg sunu pàpp yi di xëy di dem nii yàlla du tàggoo. Mm-hmm. day xëy rek def li muy def moom amul ñun sax ñun ñi yëpp kenn xamul ndax dinga génn fi egg yàlla rek xam mm-hmm. donc kilifa yi nañ nañ rafetal jaay doole bi dóor bi xoolal li ñuy def gàddaay fële maatee massacré ay ay mag ay jigéen. ay jigéen yóbbu leen démb bi ma dégloo suñu yaay di wax ci rajo bi mooy ki ñu doon dóor cross bi ak. Euh, ndeysaan bi ma leen déglu ñu expliqué récit bi nga yóbbu leen police moom <coughs> nee nañu ca police ba sax la ñu gën a parce que foofu lañ leen gën a euh, c'est-à-dire que. néew néew di doole xam nga mettital boo xamante ni xam nga nit nga teg ko ci benn place ba 22h mu ah. bëgg a jóg tuur ndox mag nga ne ko doo bouger. loolu c'est quelle yooyu mooy lan. donc vraiment kilifa yi. foog ñu def attention muy force de l'ordre capitaine Dieye wax na ci dinañ ko fi indi sax bu soobee yàlla mu waxtaan ci ñun ak keneen ak keneen. Mhm. mais gars yi nañu rafetal. parce que mhm. diis na. diis na yàlla fekkee na ko waaye mën na seetaan. wallaahi dañu yaakaar ni ñoo am pouvoir. wallaahi mhm. dañoo bëgg xanaa réew mi kenn dootul wax kenn du def dara ñoo bokk réew mi. ñoo bokk réew mi dañu ko teg ci yoon rek. ko teg ci yoon rek teg ko fi ñu ko war a waxee waaye nag nit kii boo amee li la naqaree sañ nga ko wax. Euh, pays de démocratie la ñu wax. bi dafa daw bi may dégg sunu yaay bi mu naan am na koo xamante ni dafa tukki woon ñëw xaw ma genre c'est-à-dire que vu la situation mu crise hmm. yem fa am koo xam ne dafa jël doomam yóbbu jàng yóbbu dem yóbbu ko mu jàngi ñëw fekk ñu daaneel kër gi yooyu dafa diis mais ñoom est mu ngi may nettali euh, sunu benn pap boo xam ne photographe la gis nga jamono bi ñuy bi ñuy defar affaire Euh, kii bi. Hmm. Euh, terre bi. Mm-hmm. koo xamante ni dafa dajale àddunaam yëpp ba tabax. Hmm. ngeen xëy ñëw rek ba mëx. ñu ne dafa crise ABC hmm. après dem yooyu te ay àq la. àq la yoo xamante ni kilifa yi ngeen xam ñoo ñuy seetaan di jël yenn décision yi billaay da mu yéex mu gaaw da koy yëg. da ngeen ko dul xam nag kañ la mais da ngeen koy yëg de. Euh, tout à fait Papa Sane laata rek ñuy dem ci. mbirum dañ bàyyi nañ ko bàyyi mu génn wax dëgg yàlla aussi d'accord. ko mmh, bàyyi seen askanu Sénégal yëpp nee nañ leen bàyyi Karim nag bàyyi leen ko mu dem faju nag tamit li lan la. ayca ci noonu Pape Assane démb def waxtaan nañ nañ fii mbirum uno ñoom ñi nga xamante ni dañoo amoon benn cas ci seen biir ñu am. Euh, ay mmh. euh, source ñu jottali woon ni que euh, dañoo tëjoon butiku ngor bi jël ñi fa nekkoon di leen yóbbu bërëb bu nekk Liberté 6 def nañ communiqué MD bu communiqué bi pare ñu mun koo seetaan ne ñoom jël nañ mesure yi war yëpp. waaye ba tey euh, man j'appelle les forces de l'ordre comme yàgg nañu def suivi nañu topp loolu def suivi yaakaar naa ne mbir bu amee nañu wax ak employé yi moo gën ñu wax ak employeur yi waaw bu ko defee Euh, bu ko defee euh, ni ñu ko waxee ne chers clients nous parlons à votre connaissance qu'un cas de Covid-19 a été détecté parmi le personnel de la boutique de Ounongor nous vous informons par la direction le cas infecté a été par les services du ministère de la le site de Ouno a été fermé automatiquement et le personnel qui était mis en quarantaine selon les instructions de l'autorité sauf personnel-là Euh, désinfecté dès aujourd'hui par le service d'hygiène. Même si le site est désinfecté, les personnes ont une période mm, mm. d'incubation de 14 jours boo xamante ni dañu leen war a tëj ci seen kër yi parce que faut savoir que boutique Uno boutique de vêtements la nit ñi dañuy ñëw natt mm-hmm. euh, simi teg mm-hmm. Mm-hmm. keneen ñëw natt simi te ñun ñi fi toog ñëpp du du ñàkk mu am kenn mbokkam boo xamante ni dafay jënd yére wala di jëndal doomam foofu wala def ay courses foofu yaakaar naa ne ñi fa doon liggéey donte te nee nañ dañ ils sont je pense que même suñu désinfecté bërëb bi ce qui est possible war nañoo euh, jël nit ñi fa doon liggéeyee ñu bàyyi leen ñu noppalu 14 jours boobu noonu xool ndax virus bi du ñëw ndeke président de la république moo ko def Pape Assane je pense que ñoom loolu war na leen parfaitement <coughs> c'est une obligation d'ailleurs mhm. euh, sanitaire euh, am na kenn si ñoom monsieur Diallo seen responsable je pense de communication qui m'a appelé mhm. pour def ay précision nekk personnel bi nekkoon Ngor on les a pas déplacés à à nu mu tuuti à Liberté 6. à c'est version contre version. mais c'est version justement moo tax nag euh, euh, le préfet de Dakar a été saisi. Mhm. Euh, par l'occasion pour euh, vraiment réagir donc Jack Bauer ginnaaw bu ñu la masaw te jaale la ci li nga xamante ni moom mooy wàccum liggéey sa kilifa bi fii bàyyeekoo. Mhm, di suñu kilifa ñun ñëpp démb mi ngi yoon Tiwaawan. ñu koy mhm. saisir ci loolu. waaye moom comme moo fi taxawal lu Ndakaaru ak force de l'ordre yi. yaakaar naa ne war na dem gëstu loolu il faut un un problème de suivi de, au Sénégal il faut que le suivi se fasse quand une information est livrée mhm. le concerné ou la concernée def réplique de précision mhm. on prend acte on prend acte et mais on vérifie alors donc euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk der yi nañ dem saytu lool bu baax a baax ndaxte euh, wér gu euh, yaramu askanum Sénégal yaakaar naa ni moo leen ñor ba tax ne ñu ñuy takkaloo masque di ñu waa ministère chaque jour def ay point Covid 19 donc am na solo ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax ni ñuy def suivi ci bërëb yi xaalis jarul wér gu yaramu mm-hmm. jeunesse sénégalaise Papa Sane Seck bu ñu jugee nag ci mbirum boobu dañuy daal di desandi ba tey ci actualité ñu waxtaanee le ministre Mamadou Talla qui se félicite de la reprise effective des écoles. Papa Sane bu defee nii rek ma daf may rey. ah d'accord ci li nga wax. d'accord ah ah damay laaj bu fekkee dañu nekk ci dëkk yu différent ñu comprendre démb presse sénégalaise. spécifiquement journal L'Observateur moo ñu wax des cas yi nga xamante ne ay écoles yu amul toilette ay écoles yu amul ndox. ay mhm. écoles yoo xam ne toit yi dañuy délabré. on a vu ci journal télévisé bu Sen TV le cas d'écoles yi nga xamante ni plafond bi la yàlla xam doy na. Mm. on a entendu des écoles privées yuy wax ne dañ leen di fayeekuloo deux cent mille francs nekk ba veille bi suba la école di ubbi on le parle de débit. Mhm. ci gis nañ nga baal ma école yoo xam ni euh, enseignants yi dañu ne du ñu jàngale parce que dañ leen amee tam ay arriérés de salaire. moo ci eh, suivi la ah Sen TV. merci am na dëkk dans le sud du pays yoo xam ne dafa taw ndox bi bari torop une forte ñoo ñooñu mënuñoo jàng. waaw léegi loolu nga fi wax nii yëpp. kilifa gi war na kaa yëg. man moo ko gën a yëg. moo ñu ko gën a yëg. léegi lu tax kilifa bi di xool ñu koy xool. ñuy gis muy gis mu ne ñu lii mooy dëgg te ñun ñu gis dëgg. mais est-ce que du rab gis na. est que gis nga comme par exemple tey. Hmm. Paasan ñun ñi ñu war la def rapport. weexul Mamadou Talla suñu kilifa suñu pap bu baax. bi mais je me dis que non je me am na yenn yoo xam te ne xam nga nee nga gis na. ñun ñu gis te teewul lii la wax est-ce que tamit du ñu koy defal rapport. mu basé wul rek ci rapport bi. waaw kese jéemul xool média jéemul dégg nii di xool rek lan la ko ñi mu dénk ñi ko war a defal rapport lan la ko ay kiiwam jox. ok li nga li nga li nga wax. ok donc xëy jox ñu ko information yi mais bi ñoo bi ñoo na bi ñoo na enseignant. c'est pas une raison bien sûr de de l'éducation. am na ay ndawam xëy na yu toog fu un peu partout. ce n'est mhm. pas une raison moom war na xam li xew ci réew mi ndax am war na mën a suivre les informations dans les normes il est ministre dans les normes il est ministre de l'éducation maanaam nga xam yi Kolda 36 écoles hors course ak 64 yu amul ndox boobu xam naa yëgu ko Euh, Bignona enseignant bi ñu testé corona. Mhm. yéegu ko école 43 ndox. yéegu ko ak 77 sans toilette boobu tam. yéegu ko ko donc léegi région yi nekk Sénégal mhm. yëpp. ak école yi nekk Dakar yëpp ñi am problème yëpp donc yéegu ko. ah sunu kilifa bi ak ñi mu àndal ñoom bi ñu yëg mooy école yi ñu. te nag dañuy bàyyi di ñu woon ay Ngalandou Diouf. mais c'est ça. tàng ay ay ay naan gis ngeen fii c'est propre. tout c'est normal. gars yi gars seet yàlla si li ñuy wax ak li ñuy def fi mu nekk nii moom ñoom dañuy jàpp ne que te ku ci wax lu waroo ak ñoom li kilifa yi wax. jàpp ne da nga leen contre. oui dommage te ñëpp ñun ñëpp ñooy gisandoo. contre euh, euh, euh, ma démb ki ma message ne ma deux mois ngi nii amuñu ndox. oh ci ban gox. fii. boori Koumpentoum. waaw léegi léegi ah. waaw même Dakar Dakar supprime moom ah, supprime moom am na euh, sama xarit ba madame Ka moom dafa daf ma jooytoo ndox mi jo ba mu gi daf maa baax. faf moom daf ma baax ah, gars yi nañuy tey la àjjuma gars yi nañu istifaar yi na bëri ci dëkk bi ñu baal suñu borom mm-hmm. Mm-hmm. kilifa yi jël leen kurus ngeen baal ñu ak wet bi ñu leen jox ngeen téye ngeen wax astafirullah parce que parce que di ñu xool ñu leen di xool ngeen ñu ne école bi reprise bi effective na tout te ñu déglu ay élèves ak élèves yu taxaw di wax ne affaire bi dafa mel dañ ko précipité ñoom ñoo wax ñu si daan ko ci télé bi dégg ko donc xëy na ñun li ñuy gis ci télé yi ñoom kilifa yi leneen beneen télé leen di wan. wala yeneen rajo lañ leen déglu. wala yeneen info la ñuy déglu ah comme nag dañuy tere ñun journaliste léeg ñuy wax wala ñuy fësloo fësaloo suñu ay sources est-ce que tamit ñoom duñu déglu ñenn ñi ci ñu leen gënal rek. c'est dommage c'est dommage. C'est très dommage quand même parce qu'on parle là de l'éducation du Sénégal du Sénégal prochain. léegi nag léegi nag comme nag ñu ngi ci situation boobu gis naa Seydou Gueye sunu porte-parole gouvernement euh, mu wax ni le président n'est pas malade et il y a pas d'intérim d'accord. nee na il fonctionne sous sous format télétravail. <laughs> oui parce qu'il est en période d'incubation ah. Ah, il est négatif. yu ñaas yi 14 jours yu ñaas yi dañ koy dindi xale yi teg nañ ko ci bopp réew bi ba noppi de. <laughs> ba pare nag ñoo ko tatu sax nag xale yi ko tatu nag yàqal ka. non non non président feebarul dégg nga ma ne la. non feebarul il a juste été négatif euh, dafa sonn ci benn xale bu ndaw bu ko sonal boo xamante ni fatt ko wër ko bëgg ko wër ndoom pexe la koy wutal wutal ko pexe. na ko wutal bu ndaw bu pare. ko président pare ci moom. koron bilaay moom ak coronavirus bi xaw nañ méngolee tur en tout cas hein, franchement je pense que la jeunesse sénégalaise ne le mérite pas war nañ bàyyi xel bu baax a baax ni njàng mi tey moom mooy defar ëllëg bu ñu xalaat ci nguurum tey rek papa Assane Seck bu ñu forcé tey ba def examen dinañ sacrifier ñu bare te ñiy jàll duñu am niveau bi loolu mooy cest dire que dinañ dinañ jàllale. mais ñiy jàll du ñu am niveau bi nan la nit di jàngee. quatre mois quatre mois yoo xamante ne matul sax mars ba maintenant c'est combien de mois c'est trois mois non. coupé mm-hmm. de trois mois ci année scolaire. léegi nga ne danga koy dabu ci benn benn weer. mënul nekk en tout cas peut-être UNESCO boru UNESCO bi la ñuy bañ delloo ah. UNESCO xaalisam peut-être aussi xam nga tamit koppar moom bu ba pare rek waaye nañ ko organiser waaw yal na ci yàlla def sutura justement en tout cas ce fut avec un immense plaisir ah ñu mais <laughs> euh, oui. Euh, une euh, dernière pensée oui l'association des parents d'élèves. nañ bañ nañ jóg. mais am na si ñoo xam d'accord voilà mais am na ñu jug sax. tamit redoubler sax jàng bi effectif. waaw effectif ba pare xoolal na parents yi delloowaat xale yi kii la rek ni Paasan waxee xam nga da ngay perte après une année. tout à fait te amul sens amul sens en tout cas merci beaucoup à toute l'équipe je suis avec un immense plaisir. Jumaa Mubarak plaisir partagé di jaajëfal Modou may kew ci perruque bi euh, Mami Ascoa Fir Fatou Bey moo ko kubaat nii Pape Sow marché HLM moo def euh, coupe bu yànj bi waaye mbasin bi c'est bàyyi mii si soxna lay amee. soxna moo tax it rafet na trop macha allah merci beaucoup Ndeye Tuuti ak Nabou chéri yéen ñëpp ak ñi doon bëgg ñëpp jaajëfal naa leen. merci beaucoup merci beaucoup Asma merci à vous en tout cas vous êtes ravissante. merci beaucoup tey moom ñëpp daal di rafet man nag sañ-sa bi may naa ko na fi jëyee bu rendez vous maa koy def un gros bisou moom ak bébé di leen jox rendez vous lundi incha allah. Papa Sall félicitations à notre fils et petit frère Momo. Mohamed hmm. Wane. oui c'est marié hmm. hier voilà. yàlla na yàlla barkeel. amiin amiin amiin. allahumma amiin amiin waay. Euh, maski. masque yi nañ koy takk. waaw masque yi takk di raxas loxo yi tàng na et tout mais masque yi. koy takk ah, ba pare ba pare gis naa sànq Saliou yow laay daf ma teg loxo sànq. nañu bàyyi tegante loxo bi nuyoo beeg affaire yi. <laughs> voilà Aïcha merci beaucoup yow moom torke torke na la. Oh, waaw waaw tey moom <laughs> tey moom tey moom def na ci man lu rëy. macha allah macha allah c'est excellent alors lii moo nekkoon suba teel man nag VIP design Fatima Kane moom moo jaar ci sañse bi ma di la jaajëfal bu baax a baax ku bëgg rek moderne africaine aussi mën nga ko woo moom mu defal yu baax incha allah rabi euh, bàyyi euh, leen ak euh, Ya Seyda rek à partir de 11h ci waxtaanee ko bonne suite des programmes sur la Sen TV quant à moi je vous demain.